xam nga taar téeméer la taar téeméer la juróom-ñeent fukk yi 90 yi la yàlla jox rasulullah yi ñaata des sallallahu alayhi wa sallam 10 mu des fukk yàlla jël juróom-ñeent yi 9 yi jox yusufa mu des ñaata benn bi ci des la ñu yàlla séddale ñun monde bi moro ku ñaaw kala dàq la ñaawal wa jamaalu yusufa min diyaai samaka taarug yusufa ci sa leer gu leer gi yow rasulillah yi ci la yun ci yàlla yusufa amee taar ya rasulallah qad fuqta ya taaha qad fuqta kawe nga ya taaha xadamak daraan julli ba tànk yi néew yi moom rasulullah sallallahu alayhi daan julli ba yàlla di koy am ñeewante ci moom daan julli ba yàlla di am yërmande ci moom Aïcha naan ko lii lu ko jar mu ne ko afalaa akuunu abdan abdan shakuura ndax nekkuma jàmbuy delloo yàlla njukkal qad fuqta yaa taaha qad fuqta yaa taaha jamay al anbiyaa turan kawee nga yorantu yëpp yow yow yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa subhaana alladi asraaka naa seetlu buur bi nga xam ne moo la rañaane indi la ci moom yow rasulullahi wallahi yaa yaasiinu wallahi yaa yaasiinu wallahi yaa yaasiinu wallahi yaa yaasiinu ñëpp ni nii wallahi yaa yaasiinu wallahi yaa yaasiinu wallahi yaa yaasiinu yaasiinu wal quraanil hakiimi muhammadul amiin wallahi yaa yaasiinu innaka la minal mursaliina ñëpp ni nii wallahi ala siraatin mustaqimin wallahi ya yasin giñ naa ko ci yàlla ni yow yaasin yaasin nag euh, ci cosaan mën nga ni mooy mooy sang yaasin mooy góor yaasin tur la ci turu sidina Muhammad yi wallahi giñ naa ko ci yàlla ni yaa yaasin wax nañu ni bu ko yàlla wax yaasin da koy neexal def nañ ko le plus beau des beaux yow rasulullahi wallahi yaa yaasinu giñ naa ko ci yow yaasin yow sidina Muhammad wallahi yaa yaasin mislu ko lam yakun ku mel ni yow musul nekk mbindeef yépp nag wa xaqi man nabbaaka ci àq ka nga xam ni moo la solo yow rasulillah an wasika suaraaw aha yaa mudassiru aha ajadu xaaral xaaral xaaral da nga naan ashuaraaw ashuaraaw waykat yépp hmm. waykat yi ku mës a taalif hmm. ajazoo ajazu lottu lañu lottu nañu ñoom ñëpp an wasfika ci sa mel ci melal la yow si gina Muhammad hmm. an wasfika suaraaw yaa mudassirun ajazu wakkaloo min sifaati ulaaka waaye lottu nañu it nag lottu nañu lottu nañu ci melal sang melu gi yow rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam injiilu isa nee na téere yu tala isa bi di injiil qad ataa bika muxdiran dikkal na la mbir ma muy aji xabaar la wala nal kitaabu ataa li mati ulaaka téere yoo xam ne dikk nañu di tagg rasulillahi maada yaqulu almaadixuuna nee na ana lan lay wax taggkat yi nga xam ne ñooy tagg rasulillahi wa ma asa nee na ana lan ana lan ah an tajma alkutaab min maanaaka léegi lan lu tax pourquoi ndax mën nañu dajale ay téere an tajma alkutaaba lu topp min maanaaka pour ñoom yëpp téere yëpp xam sag maanaa gis nga gaa yi ñi tagg rasulaay lépp lu ñu wax wax wax wax lu ñu ko tagg tagg tagg tagg jël àdduna bi feesal ko ay téere du tax ñu mën a matal ay maanaay rasulaay yi. wallaay. giñ naa ko ci yàlla ni law annal bihaara midaaduhu bu yàlla defoon géej gi def ko muy daa daa daa ngay capp di bind. wal usba aqlaamul ju'ilna lisaaka nee na ak ak ñax yi àdduna yàlla jël jël àdduna bi def ko ay ñax maanaam def ko ay pilim. lam yaqdiri saqalaani. yajmau nasratan. déedéet wal usba. wal usba aqlaamun ju'ilna ma firi loolu. bu yàlla jëloon géej gi def ko daa. jël garab yeeg gat bant yeeg lépp def ko pilim. pour ñu mën a bind ay darajay rasulullah yi bind ay maanay sayyidina Muhammad duñu ko matal. laa ma yaqtule sa xalaani du attan ñaari wayu diggi bopp ñi te muy nit ak jinne yadmau nasratan abadan wa mastasaau loo idraaka nabi bi kali qulaybun muxramun yaa sayyidi yonti yàlla ahmadu nee na ko ci yow xol boo xam ni xol boo xam ni cofeelam jeex na takk ci bëgg la yow rasulullah bi kali qulaybun mughramun ya sayyidi yow sang bi aha wa husaasatun maxsuwatun bi hawaaka ak bakkan boo xam ni bakkan ba bëggul deful lenn lu dul sopp la yow rasulullah ndax yow yonent bi wa iza sakkatu nee na su ma noppee dal fa fii ka sumti kulloo fa fii ka ci yow sumti samay sama sama noppi gi kulloo lépp mooy mooy mooy mooy ci yow rek rasulullah wa iza nataqtu fa ma dul aliyaka waaye su may wax jàmm santeeg di wax ak lu ma mën a wax lépp tagg la jëm ci yow rasulullah yi pam seex sa soppe boobe wa iza sami'tu nee na su ma déggee fa anta qawlan tayyiban day nekk wax ju teey goo xam ne ci yow la ci yow la jëm wa iza nadatu fa ma ara illa nee su may xool xoolal may xool du ma gis ku dul Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oh, su ma xoolee El Hadj Pape Cheikh Diallo. Rasulaay dong laay gis ci moom. alaaji asan rasul dong laay gis ci moom Cherif Boubacar maamam dong laay xool ci moom nee na lu may xool sama gis mbedd yi ak lu mën a xool nee na lu ma xool gisuma xooluma ku dul Seydina Muhammad na ñëpp di nii kon yaa maaliki kun shafii kun shafii yàlla lay waxal foofa fii faaqati inni faqirun fil waraali yàlla day ku ñàkk laa ci mbindeef yëpp waaye nag yàlla yàlla nag ma boole ca ñi Seydina Muhammad dina mu ëllëg. yaa a saqalayni. mu ni Seydina Muhammad moo gën ci ñaari dijj bopp yi te mooy nit ak jinde. yaa kanzal wara. nee na Seydina Muhammad mooy mooy magasin mooy magasin mbindeef yi moom rasulullah. nee na nee na ci sa tab gi la ñëpp tabee yow rasulullah. sallallahu aji xemmem laa man bil juudi ci sa tab gi mbenn ka wala bi yakun ci tukkee ci yow tam mbir moom nekkul li abi xanifata moom abi abi xanifa lil anaami siwaaka aha loo teg na ñëpp ne nii fala anta safiun wa mustafain yow Seydina Muhammad yow la yaay rammu waaye yow la yàllay rammu lu ëllëg yow rasulullahi wa laqad xadaaka mujj na محمد الأمين أه. ولقد عداك أه. يا أكرم الثقلين كي مومو ينتبي يا كنز الورى أه. جد لي أه. بجودك بالله أرضني برضاك صلى الله عليه وسلم وأنا تابع أه. بالجود بالله منك ولم يكن أه. لأبي حنيفة بالله في الأنام سواك فلعنت شاء أكرم شافع ومشفع ومن التجا بحما تنال وفاك ومن التجا بحما تنال وفاك ومن التجا بحما تنال بارك الله بمولدك الدنيا وتزينت وتزينت damay firi foofu ñaari bayit nga jox Serigne Fallou Seck moo wax ma ñaari bayit lu Seexul Xadim wax nga wax ma benn ñaari bayit lu Seex al Islam wax waxaat ma kee wax ma ñaari bayit lu Seex na Seex Saad bu wax ma jox Alaaji Papa Seck Diallo Alxaaji Mansuur si Maalik bu Seyd Alxaaji Maalik nee na Alaaji Pap turandoom Seyduna Muhammadu wa baxruka taamin lii bàyyu xalifa bee ko wax sallallahu alayhi wa sallam Alxaaji Mansuur dafa jàkkaarloog Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam 1944 toll ci 44 ans yor yoru altine biir rawdu rasulullahi mu ni koo baxaruka sa géej xam nga keef gi keefu xitaab la mi jàkkaarlook jàkkaarloog moom sa géej yow rasulillahi mu ne ah mu ne ko taamin aj yëkkatiku la taamiyun la woon góor gi xam ne bu ne taamiyun wayu di ko attan mu ne taamin ndax tanwin dafa ñëw ñeenti yëf ci arab dafa am tanwin waxiwaat ak tanwin yanqasimu ila arbaatil aqsaami dafa am tanwinu iwat am tanwinu tankiir am tanwinu muxaabala am am tanwinu tamkiin tanwin gii nag tanwinu iwat la iwat nag dafay séddale koo ci ñetti xaaj iwat yanqasimu ila thalathati aqsaamin dafa am iwat an xarf am iwat an kalima am iwat an jumla waaye bii góor gi wax iwat an xarf la ndax li anna yaa xuzifa wa uwida anha bi tanwinin góor gi ne wa baxruka sa géej yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam taamin ismu faa'il la aji yëkkatiku la laa tukaddir hu du ko nëxal addi laa baakee jamoo dallu man jaa ku dikkal na bi saatihi ci tefesu Seydina Muhammad asbaha dana mujj raadiya di aji kontaan jaru ngay xuus ci géej gi yemal ci tefes gi rek jël sa bagaan teg njool maa ko la wax walaw nee na bu nekkul nag rasulillahi lam tadral qadi qad qadra lam fad allah بعد البوال يا النبي mu ni walaw laahu bu nekkul nag rasulillahi lam tadri du xam du xam alxaliqatu mindeefi xadarahu daraja yàlla waaye bii ci daraja yi Seydina Muhammad fataxa la ubbi allahu yàlla alkunuusa mënd yi mooy magasin yi ma la tëju woon lépp Mm. ubbeeku na yàlla nga ko ubbee ci darajay sa maam ba wax la yabdu bisil mustafa muhammadi ku wax loolu baay basak baara nee na la yabdu mislul mustafa muhammadi baayu si abdul ahad mbàkke baayu si suhaybu mbàkke baayu si muhammadul mustafa baayu sëriñ fallu nee na lam yabdu mislul mustafa seexul xadim nee na lam yab du dootul feeñ mislul Mustafa ku mel ni ku sell kii di rasulillahi siran wa jaaran fil balaaya Sëriñ Samaam nee na bu nekk noonu Seydina Muhammad sirran ci biir wajjéeran ak ci biti fil baraya samadi nee na ci biir ak ci biti ku mel ni Seydina Muhammad Cheikhul Xadim ne jeex na madallana Sëriñ Bamba ne madatalla na la ma ñeel lislaama diine lislaam wal kufra ma Serigne Bamba nee na wal kufur kéefër ne ma a nasiri eh, eh. a tili kulli sama e, ma dallana nee na kéefër maxa Serigne Bamba nee na Seydina Muhammad far na ko yaxudu bi zahiri wal baatili man ataahu ataahu lillaahi lillaahi fi kulli zaman xidmatu xidmatu xidmatu Seexul Xadiim ci la sama ay lépp dañee kawnul Mustafa Raysa lii baana kawnul Mustafa Raysa lii kulli man xat fuddiloo roosa kul xadamaaw fooxa kulli raxaa eh, min musaal Muhammadun delu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku mel ni moom bàyyi sëriñ Fallou ne dootul ñëwati. fii mamada wa abadan laa yaati. sëriñ Bamba nee na li weeseeg liy bëgg ñëw ko ministre Seydina Mohamed jeex na. kenn du yonent bi yamamtu. sallallahu alayhi wa sallam. bàyyi ni yamamtu. cheikh al islam. rasulallahi. maami sëriñ Mahi Cissé. yamamtu rasulallahi. maami imam Cheikh Tidiane yamamtu rasulallahi baayu sëriñ Cheikh tamit sama tijaan yi ñas ñëpp ni ni yamamtu rasulallahi bàyyi ne jublu naa waa ji te mooy rasulullahi sallallahu taal muqaddasa xadamaka nee na waajooy moo sell mooy taxa wal ajdaadi aslal muassasa bàyyi nee na amul ndend moom rasulullahi sallallahu ani nit di amul nen koo koy tëkkaleel cheikh al islam ne amu ko boo koy tàmbali cheikh al islam ne bu bëggee xam sama waa ji xool ko ca maamam yi moom rasulullah gi rasulun nee mooy ndaw li wa asru naasi bàyyi nee na kooko cosaanu nit ñi maa un wa jëndalun cheikh al islam ne bi muy xam ne lu yàlla bind mooma maam uh, aadama ma ngi ca diggante man ak ndox ndox mu ban bu ñu jaxase rasulun wa asru naasi maa wa jëndalun fala in sabida billahi zamaani muhannisa cheikh al islam nee na doo gis ci nit ñi ku mel ni Sidina Muhammad say alhaadi Abdul Aziz Si Maalik ne Muhammadin nee na moom mooy Sidina Muhammad habibikal karimi alaaji abdu ne koo koy soppe yàlla mu tedd ma mooy ayni naimi baayu sëriñ Maodo ne ne koo koy jëmmi xéewal mooy barkadil fu nee na Sidina Muhammad mooy magasin wuyu dégg ñi Haasim alxaaji Abdu nee na kookoo gën ci giir Haasim wa ayni rahmati nee na mooy jëmmi yërmande mooy xayril bariyati nee na Sidina Muhammad moo gën ci mbindéef yi mooy shafiul ummati nee na Sidina Muhammad mooy ramu jaam ñi kooku akrim bi kawteefu tedd nga min sayyidil amuli min sayyidin ci sang bi xamuli ka yenn waa koon azal baraya nee na Sidina Muhammad moo la moo yenn loru mbindéef yi mooy waalidil batuli nee na kookoy bàyyi batul batul nag buñ koy Fatima al batul boo ko bëggee xam mooy al munqatiatu ani dunya almuxbiratu ala lay bil kulliya loolooy batuwul. Sëriñ Alaaji Abdul Aziz ne akrim bi nee na kaawteefu tedd nga min sayyidil mi'taay min sayyidin ci sang bi mi'taay kay joxe waa kon mooy baxril huda nee na sayyidina Muhammad tey géejug xam na bay xiiratil anbiya baxril huda mooy géejug njub mooy tànneefu tànneefi baxril huda mooy géejug njub mooy xiiratil anbiya mooy tànneefu yonent yi ndax yow akrim bi kaawteefu tedd nga min shaafi'il musaffa min shaafi'in ci aji ramm ji al musaffa ay kadu ko ñu rammuloo inda shidaadil hawli yawmal fada'i fas bisub tartarloo ba nga xam ne ñëpp tiit kenn ay dékk ànd ak sa góom mooy sa maam rasulullah kawteefu tedd nga min mulkin rahim nee na ci xettal lii nga xam ne moo yërëme ak kawteefu tedd nga min maldiil karim ci wéeruwaay bu tedd bi kawteefu tedd nga kawteefu tedd nga bi hada al abdu inda rabbi ci jaam bi fas wuy ji borom moom rasulullah akrim aha bi man ilaahuna yarhamuna yàlla daal xam nga lu xew mm. yàlla ak ñu yërëmee ci darajay rasulullah akrim bi man bi ci darajaam la lañu amee lépp lu ñu mébétoon moom rasulullah yi. akrim bi min maajidi mooy sajidam kulli ra raakiin wa saajidin ne la Seydina Muhammad mooy sang ku mës a sujjóot ak ku mës a rukkooa kuy sa sang mooy rasulullah yi nabay sayyidal kawnayni nee na mooy sangu ñaari univers yi te mooy àddina ak àllaaxira alamal huda nee na Seydina Muhammad mooy drapeau njub nabi badra timmi nee na Seydina Muhammad mooy weeru mat wi fil wujudi ci mbindeef yi alal mada alal mada ci sallallahu alayhi wa sallam ndekete moo ñu teene law bayandoor jaami day saa yi nalaw yeexu leen ñu wayi sayyiduna huwa nabiyu huwa nabiyu huwa nabiyu wa rasuulu Seexul Xadim nee na kookoy ku nu soloo ki huwa nabiyu wax ko benn par benn huwa nabiyu la Sidina mooy ndaw li. sallallahu alxaliil. Sëriñ Bamba nee na mooy xaritu yàlla. wax wala bi. Seexul Xadim nee na soppe yàlla. walimaa. baayu Sëriñ Fàllu Mbàkke nee na koo koy njiit la. watali. baayu Sëriñ Saaliw nee koo koy tegtal la moom Rasulillah gi. araho diw min xayri jamaa. Sëriñ Bamba nee na. xoolal yàlla mi yett mbindéef yi hmm. di defar mbindeef yi mm. di bind mbindeef yi mm. sëriñ ma ne yàlla yett njool màkka mu dàq lu yàlla bind mm. boo nee sittax njool ca kaw boo àndeeg rasul mu sut la mbooloo buy ñëw moom ngay seen ca kaw bopp ba dafa rëy la ca ñuul li kukk karaw ga sànne ko ca ginnaaw la ca ñuul li kukk la ca weex ne tàll rasul am taxawaayu ndombay bari tasaaroo su ma saan a ñaq day mel ni or ba wal këpp ca kanam ga diggante bakkan baak jëba leera ci daan daw di ci circulé ñu laaj bàyyi Serigne Babacar Sy Alhaji Malick bàyyi Alaaji Abdou Mahamadul Mansour bàyyi Mahamadul Habib ne xaliilu tadbiirul wacc yi mu ni Seydina Muhammad aji néew ji wëndeelu kanam la lay sa kal samatun déet gëllu góose wa tuulu ak gudd fil wacc yi ñu nekk ci kanam rasulullahi mu ne yaa wasafata mu ni Seydina Muhammad bu bu mësaan a ñaq day mel ni ba wal ci kanam ga الرحمة كأن في قبضه ماء ذهوب جرى ملاحقا وجهه الجدران وألمي صحابة yi bu ñu bëggaan parfum dañuy bàyyi ba ñu jël màkk ñaq ñu jël morceau morceau fomb ko ca ñaq ga jël morceau ba dugal ci bërigo ndox yëngal bëri ko ba ku ne indi sa gurtu la mu gën a neex parfum de classe wa riixuhu laysa riixul miski yusbiuhu ka annama fiddatun unqun lisil qudumi booy liggéey dajeeg moom di nga tardé boo ne ko jàpp loxo nuyu ko jàmm santeeg moom sëgg siggi xool ko sëggaat siggi xool ko mu jox la beneen couleur moom Muhammadu Rasulullah aha axiru mumet aha zaayiru mumet baatino borom bareer nii ñu màggalantu yàlla Muhammad daga saana mariyaati kama saada man mada njool makka yaa leen gën du gën gu naw ala yasan hmm. ismuhu sharifun. ismuhu sharifun. ala arba'ati ahruf al-hijaiyya. ala arba'ati ahruf al-hijaiyya. ah. li kulli harfin minha abniyatun wa maqam. léegi xam nga nu ñuy def alaaj ngañ xoola alaaj ngañ téyel leen ma mani téyel leen ma gàmmu gi tuuti mani wuy ma damay nuyoo. mani mani waaw kay da ma koy téyeel dañuy delluwaat dañuy delluwaat dañuy delluwaat ci kilifa yi delluwaat ci El Hadj Pape Cheikh ah, am na ñu war a ñëw bu ko defee ñu dellusiwaat alaaji Assane posé waat question yi waaw Chérif laajaat nu nu waxtaane Seydina ne macha allah ñun dañoo daanu macha allah di déglu religieusement te gëm naa ni comme sët bi la ñu woo ne ko kaay présider dinañu xaar notam bu jotaay bi jeex waaw man njortu naa note bu baax xam nga yenn saa yi nga dem defi bac génn ñu ne la ça va oui oui toj naa toj naa épreuve yi waaw oustaz Pape Hann loolu lañ defal nii te euh, commencé guñu donc soppe yëpp bég nañu ñuy euh, lu li ñu jagleel tey ku tedd ki moom rek a jara waxtaane nag donc c'est pas pour rien tey guddi gi euh, doon guddi gu doy waar pour taalibe yëpp ak sénégalais yëpp àddina wërngal képp euh, kontaan ndax fu ñuy waxtaanee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa am euh, benn sentiment d'apaisement euh, buy am ci kër yi di am ci nit yi waa saful fenn tey dina saf sàpp ak bi fii rek la safi wallaay mbay man Pape Anne sax dëgg-dëgg tey bettaat na la daana ma bett mais tey dafa ma bett beneen bett bu bees. da bettati. billaahi daana ma bett. yu ma ayse. waaye tey dama bett beneen nga xam ni moom Oustaz Pape tëggal na leen conférence ba tàyyi ca Philadelphie. woo na ma léegi na ma est-ce que kii Pape la. non man damay dëgg la. ma ne ko daal ñeewoo ko xanaa ah man li ko dal daal moo ma dal. macha allah yàlla na jàmm yàgg ajaltu faatu géwél euh, nab yeen la moom it fa nekk daanu na yenn saa yi ma ne ko yaay xanaa dañ laa seexal ci bëgg màkk ak bëgg julli ñu ngi lay ziar bu baax yaayu Bodi Gueye Nabiyen euh, Bodi itam ñu ngi koy ndokkeel bu baax euh, Bisu Njaay itam nelawul euh, nee na moom it yenn la tey defe naa ku ko doonul woon sax di nga ko doon ndax ki ñuy waxtaane jar na ko te yàlla may na jaam bi mu def rattrapage rattrapage moom c'est à tout moment yenn saa yi boo ci nekkee da ngay foog ni sax tuub day tuub day trop tard mais rien n'est trop tard ku ci newul woon ne ci waaw ndax euh, rattrapage am na solo te loolee euh, mooy jàngat bi tey ci guddi gu am solo gii nga xam ne ni ñu ngi ciy béggal kullu ku dib soppey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu profité ci rek rapidement balaa gën a guddi euh, joxe waat ci ndimbal yi nga xam ne ni itam mënul ñàkk loo bëgg na bi bëgg bi na bi da ngay bëgg loo jëndee ginaar luñ toog leen bu leen dem bisu korité it baax na nga jënd ay ginaar rek ak ay ak liñ ko sama yaay daan defee tuuti ginaar salade bu bëri jamono neexul waaye ñu may leen ñaar fukki junni rek mën ngeen cee dund te sakkanal en attendant 88 628 22 22 di ndokkeel nag koo xamee ni bég na lool ci guddi gi. moom digganteem ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn dootu ko werante fekke naa mu tuubloo ay nit ba tàyyi di Cheikh Alsane Sène waaw fekk na ma ko ca këram ga ay tubaab ñëw ay américain ay ay ay ay gabonais ay togolais. mu dugal leen ci yoonu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc suñu kilifa googu euh, ñu ngi ko ziar bu baax te nee na mu ngi félicité Oustaz Pape Hann waaye kontaan lool ci sët bi nga xam ne sët bi sët bi fekkee jotaay bi. moom bu ko fekkee rek mel na ni sët yëpp fekkee nañu ko di bu Chérif ay dara donc Cheikh Alassane Sène ñu ngi koy ndokkeel bu baax euh, di ko gërëm ñoom Saad bu sàmb ñoom Modou Mbuub ñoom ñëpp danoo danoo kontaan ci euh, li nga xamee ni moo fi am tey ci diggante ngañ mi nga xamee ni man yenn saa yi ma ne ko ngañ baa doo agresseur ndax dina woy nit ba agressé ko xam nga yooyu xeetu bànneex yooyu nga xamante ni euh, euh, gàmmul nit ba nit ko xam yooyu itam tooñ la rek moom kay boo ci boo ci boo ci tëddee maara day taali kenn ñaanu kenn ñaanu ko yàlla xamal ni yaa tooñ rek donc ñu ngi ndokkeel bu baax Fallou sekk mi nga xamee ni it bu nee der ci diggante Cheikhul Khadim ak ki mu bëgg lool nga xam ne Serigne Touba moom benn fans club la am muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Sidi Hadj Malick maam Limaamu Laay ak képp ku dib góor yàlla ci réew mi ñoom benn fans rek la ñu am mooy ki ñuy waxtaane tey on va euh, contacter euh, yenn ci ay personnalité euh, ci guddi gi ndax loolu mënul ñàkk quartier général ba mu yàgg xalifu woote amut ci télé ci histoire ba mu yàgg sëriñ munta ne na sëriñ Koso woote loolu amut quartier général ba mu yàgg woote jóge Njaasaan Njaasaan nag ni mu sore Sénégal loolu mësta donc xeetu jotaay yi itam dafa baax ñu koy bégalee sénégalais yi déedéet mbay déedéet mbay donc ñu jël téléspectateurs yi très rapidement ci ginnaaw mën leen a euh, jox nag euh, seen i ndimbal ndax korité dina am suba dina am ginnaaw suba ak certainement ginnaawaati suba on ne sait jamais nous sommes au Sénégal euh, di ndokkeel bu baax Adja juuf Diouf Adja juuf Diouf nabiyen la ak ki nga xamante ni moo di yaa Adja Ami Badiane Euh, mbokk ndeyam aju mbokk ndeyam Biis Fall mu généralement bu naa ma moom dafa yenn saa yi ko ne ko am bajaan da ngaa mu ne ma yonent bi jaral na ma ko donc moo àndoon nag euh, suma ndey jooju dem euh, di ajaa ndey mbay bàcc ñoo àndoon màkk moom it ren fekkeewul quartier général bi daaw ci heure bii rek mu ngi bind ay message am waaye ren fekkewu ko ñu ngi xalaat njabootam nday Mariem Pape Mbaye étincelle ak soxnaam di suma jigéen di sama lépp di Sophie Jaxate donc nabiyen yëpp ñu ngi leen di ndokkeel ale Fall la lu wurus euh, Faben Diop borom Dubaay nee na moom dafa yéemu tey ci Oustaz Papane pourtant Oustaz Papane yi muy def la moom lay def festival salaam di ko def amerique di ko def Europe di ko def ci dëkku Afrique yi di ko def fii Sénégal mais bay Cheikh beneen siru dugg na ci ah dafa am lu ci dugg tey. Eh, billaay billaay la xanaa mba xane soppeeku rek dafa mel ni. Hmm. man dama am gan gan gu bees. macha allah <laughs> Aïcha na beneen téléspectateur euh, euh, dugg euh, hmm. di nuyu Magui comptable. turandoo bam turandoo Seydina Mohamed ah voilà bébé Seydina Mohamed Fall voilà tey itam guddi gi ñuy waxtaane turandoo dafa tombeek anniversaire am ñu ngi ko ciy bégal c'est de la part de Magui bu groupe Futur Média alo allo allo allo Aïcha na gaaw balaa nuyu soppee nabien bu mag bi Mohamed Abdallah Thiam mi ci ah, def ay livres yu bëri ay tomi tom tey mooy sponsoru émission bi Mohamed Abdallah Thiam allo allo kookan la salaam wa ah, ngi delloo ziar émission bi kontaan ci lool macha allah. jërëjëf jërëjëf. yal na seen jàmm yàgg. allahumma amin. leen di ñaanal bu baax a baax a baax a baax a baax. allahumma amin. waaw Pape Cheikh maa ngi lay ñaanal bu baax sama doom jooju. maa ngi wax amin yaay maa ngi wax amin. leen yàlla defal jàmm yéen waa TFM. allahumma amin yaay foo dëkk. may leen wër maa ngi dëkk fii Mariste. yaa ngi Mariste. maa ngi Mariste waaw. soo ree wootee ma la transfert d' argent ñaar fukki junni très rapidement léegi ci guddi gi nga fanaanoo ko yaay sama ma kontaan ci yow. xam nga suñu yaay yi yéen da ngeen bëgg xaalis. <laughs> bilaay loolu la yàlla dogal. macha allah yàlla yàlla bu leen yàlla bu ngeen manqué dara. amin yaa rabbi amin yaa jox naa la ñaar fukki junni yoo xam ne yàlla la yàlla jàmm ak xéewal. allahumma amin. yal na la yàlla suturaal yal na la yàlla sàmm. allahumma amin. ku baax nga ku bëgg sa liggéey nga. jërëjëf. yàlla la yàlla defal jàmm. allahumma amin. jërëjëf Diallo. yaay booy ne pas comme ça ñu jël numéro bi léegi ne ñu transféré la ko Assane bul jeexal euh, xëdd bi ñu nit dafa am dañu ne ci yoonu lislaam te dañuy woor comme comme yow. moom bi ñu posé rek la jóge ci studio bi ñëw songu fukki kilo dibi yi nga xam ne doyewul. Faty mi ma foogoon ni moom it xam nga jigéen yenn saa yi da nga koy seen foog ñu du lekkat ndeke Faty ndaanaan la ah. yàlla baax na bëgg sama liggéey bu ma jaralee fande itam jaral na maa bàyyi léegi dem songu dibi bi arrêté leen xam naa daal ruq ruq bi daal am na lu fi xew léeg-léeg wallaay lu ne xew dafa mbay <laughs> mu ngoog na beneen téléspectateur dugg comme ça ñu euh, mën koo teral di nuyu tamit euh, seere seere moo jege lool bokk ak suma yaaya jot Fat Samb moom imam Cheikh Tidiane Cissé yaayu seex yi seere ñu ngi lay ndokkeel bu baax di félicité waat encore euh, Mohamed Abdallah Thiam xam naa ni oustaz papaan du tëj te du ñëw ci moom ndax def na euh, ci Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam lu toll ci 750 euh, poèmes lu toll ci 1111 poèmes livre bi moo ngi ko tuddee Le Sauveur te da ko fas yéene def ay tomi ca baayam nag ba tey donc loole lu jar wax la ñu ngi koy ndokkeel bu baax 88 628 22 22 ak yeneen numéro téléphone yi nga xam ne ni euh, ñu ngi affiché wu ci euh, suufu écran bi euh, tey xale yi ndaw yi sax dañoo soppaliku doon ay doon ay nabiyen Maxu Jaañ passe partout moom nee na nabiyen 100 pour cent la c'est bien loolu baax na moom kay rattrapage mën na ne parce que rien n'est encore trop tard ku ci newul woon ne ci ndax guddi gii jar na ko ñu jël beneen téléspectateur allo Oulimata Diouf allo. ami du Doudou Thiam kooku. maa ngi doon Thierno Mané laa tudd. Thierno. Mané. ah Thierno Mané na nga def. alhamdulilah. am naa goro bu tudd Thierno Sané Thierno saane jëkkëru Ngaala Ngaala bàyyi. Sané waaw Sané ak Mané de lépp benn. waaw Koto Mané Sané dëgg la de yéen a bokk Casamance de mais buluf la dëkk buluf. ah waaw man de kii laa dëkk nag Casamance waaye Oussouye. ah yow yaa ngi Oussouye. man nag am naa ay xarit yu dëkk yu dëkk Goudomp. waaw guddam dama lay tooñ nanga nga def maane Thierno ay waay Thierno cat dugg na ko ouh là là bëggoon naa ko transférer léegi nii euh, euh, cent mille wallaahi waaw te yéen fan yëpp bu ngeen seetloo sama wax bariwul ak téléspectateurs yi mais bon euh, wërsëgam xëj na moo ci nekkul wala bu ñu xoolee machine bi rek ñu jël beneen téléspectateur 88 628 22 22 88 628 04 05 allo allo yéen waa rédaction bi Ngone Ndiaye Géwél neen na ngeen def reportage ci ñoom ndax c'est des impactés. nee na gëj na génn single gëj na clip gëj na woote concert tëggatul soirée defatul dara c'est désimpacté voilà alo <laughs> allo allo kookan la allo allo allo oui oui allo yaa ngi en direct quartier général yow la kan allo domage dafa sature et pourtant on a beaucoup de numéros de téléphone ah defe naa numéro yu bëri na bu ngeen raccroché peut euh, composé peut être benn bu dee dafa euh, dafa mel ni lu saturé ngeen raccroché peut être composé beneen. Euh, lu ñëpp bëgg la lu ñëpp bëgg la. wallaay juróom-benn doxul jàmm dëgg la de saa yi doxul jàmm. de mbay <laughs> mami Fa Ndiaye madame Ba moom sa soppe la boo dee génn ci télé bi daf lay foto di la dugal comme léegi internet a xew xale Dakar yi Facebook la ñu xewal ak YouTube ak yooyu WhatsApp yi ñu ngi estati rek waaye moom yow rek yaa ko ñor. moom day jël téléem rek comme euh, daal di. photo dugal la ne yow la bëgg mami Fa Ndiaye moom yow la bëgg mook Adja Tourama Diaw ñoom ñoom ñoom ñoom itam dañu am ñaari fan Yacine Yacine Sey mii seen seen soppe la mm-hmm. euh, voilà voilà Yacine Rasoul allo. alo allo. allo oui. kookan la. man la Marie Kassé. Marie. oui. Marie naka. Kassé. ah Marie Kassé. waaw. Birame Koumba Ndiaye na nga def. maa ngi sant bu baax. yaa ngi woote fan Marie Kassé. Medina. Medina fan ci Medina ci ban rue. Mbaa du ngeen génn jour korité di ñaani ndéwénal. am ngeen fit bi xam naa waa Medina. am nañu fit fit bu 21 jotee ñu génn di baalonte àq. waaye su boobaa da ngay gis alkaati bu xotti bu xotti bassin. <laughs> ah chef d'entreprise nga macha allah Marie Kassé. non ah, d'accord d'accord liggéeyu leen. <laughs> Ah, génnu leen moo tax ngeen di woote waa c'est vrai c'est vrai léegi Marie Kassé kon xaaral ma teel la libéré may nañ la cent mille ah merci jeex na yow yaa ko moom bul raccroché comme ça ñu jël la ci ginnaaw xool nu ma la koy envoyé léegi voilà su ma neexee orange mu ne ko sax ndax orange itam sponsor la bu quartier euh, général euh, voilà euh, Yaw sat Sadbou Samb sa sa rak sa xarit Sadbu Samb euh, moom itam nabien la bëgg lool euh, Chérif Alwali Mané Ndiaye nee na ci yaramam bu tàng rek may na la terrain. voilà Sadbou Samb moo ko yónnee euh, mais euh, yóbbante bu ñu jot la donc Sadbou euh, kontaan nañu lool lool lool lool lool ki bëgg lool Seydina Mohamed ba jege lool ay sëtam ki nga xamee ni moo di Chérif Alwali Mané Ndiaye mi ñuy béggee ñun fu ñu toll moom nag bu gisee mbokkam bi di Chérif ay dara xam naa ni xolam sedd na di ndokkeel ba xayda moom it fa mu nekk xolam sedd na lool ñu ngi koy ndokkeel bu baax fàttewuñu ñoom cekk sekk waa waa waa waa ñu waa cekk sekk Tayba Tayba yooyu euh, ñu ngi leen di euh, ndokkeel bu baax na beneen téléspectateur dugg en même temps ñu delluwaale fële euh, ci beneen studio bi defe naa ñun ñëpp bëgg nañu maam Fati concentré wu ci diggante Fallou ak Ngañ mm. ñu pelloo mm. waaye Oustaz Pape Anne wax mm. Chérif Boubacar di superviser. Mhm. loolu itam lu neex la ci guddi gi. Euh, macha Pape Cheikh macha allah sànq yaa ngi naan xam naa Chérif bu ñu paree dina joxe note bu mhm. euh, da daan yàgg na di def siire ñu koy seetaan. waaye mhm. tey moom ni ko euh, ala daw mi macha allah Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam. ku nu bind moo tax lu ñu bind moo tax. sunu mag ñi taggee ko nu ne ci misaal Serigne Touba ak xasidaam yooyu Seydi Hadj Malick foo dugg ci këru diine yi yaa ngi fa fekk ay soppeem ñoom ñëpp sopp Seydina Muhammad ma tey nag jàkkaarloo bi dafa neex diggante sëñ Fallou Seck ak sëñ Ngañ Mbaye ñoom ñëpp du suñu ay soppe oustaz Assane toog fee di laaj oustaz Pape Anne di tontu Chérif di superviser. Mm. macha allah Pape Cheikh xanaa rek ñu teewlu. sedd na xol sedd na xol Yacine sànq daanu nga yowit ba génn li nga am joxe àddi jar na ko. billaay wallaay di téye rango ñi rek ba mu commencé ba tey. macha allah lépp rek ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mais Baye Cheikh damay damay sentir ne jotaay bi ñun duñ ci nekk ñun kese mm. xaw ma nag damay sentir benn leer bu yokk ci plateau bi sentir benn péex moo xam ne duy faral di am ci yeneen plateau yi mm. may laaj ndax jotaay yu mel nii kii di gën di mbindeef ndax duy wàcce di ziar si li nga xam ne mooy quartier général si guddi yi ñu koy tuddee ndax man ressentiment yooyu rek laa ci am su ma waxee te yàlla rek a tax ah. fu ñu ko waxtaanee mu yëg ko de moom mm-hmm. <laughs> ndaw ñëpp ay nabien lañu euh, kenn ku ñu naan Alpha Gueye nekk galerie keroog rek yaa ngi koy nuyu moom tamit nabien bu mag la mm-hmm. euh, mu ngi seetaan moom it ñu koy nuyu bu baax di ko gërëm Alpha waaw moom dafa bëgg sama ay doom sama dama am sama njaboot yoo xam ne ni Alpha leen di daggal ñu xarit la voilà moom nit <laughs> mais bu doy waar la nag mais sama njaboot gi mu yore itam <laughs> euh, di leen dimbali di leen daggal ay xale yu doy waar la ñu ñooñu ñooñu it surtout awa Kumba Fall yooyu Mamadou bul daanu <laughs> defal ndànk rek dinañ ñëw ci yow nga tegaat siis bi bu baax pare guñu ñu ngi jëm 6 heures du matin Coro. Euh, je pense que tey moom santiment wu euh, mbégte rek la ñu am. Mm. Euh, yaa ngi koy wax depuis boobu ñëpp ñi ñu waxtaanee bi carte générale tàmbalee ci édition yëpp macha allah yëpp a neex waxtaan yi nga xamante ni itamit yëpp lañu def euh, ci yonent bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam itamit yëpp dugg ci xol mais bu tey bi moom daf ci daf ci raw macha allah li tonto Garmi naan xàmmeewuñu Oustaz Pape Hann gëm naa ni sentiment boobu itamit moom la Sénégalais yëpp am depuis tout à l'heure on reçoit pas mal de messages te ñëpp daanaka même appréciation bi la ñu def ci euh, oustaz Pape ak ni nga xamante ne noonu lay firee waxtaan bi xam nga euh, euh, loo gis Pape Cheikh pédagogie daf ci am solo parce que dafay baax xale mag góor jigéen ku nekk euh, foo mën a féete li nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee nga jëlee ci njëriñ te façon bi nga xamante ni moom la koy defee macha allah oustaz Pape an euh, ku ci nekk da nga ciy euh, da nga ciy jëlee njëriñ oustaz Pape Anne en temps normal bu ngeen taxawee sax waxtaan deux minutes rek li mu lay wax ci yonent bi ngëneel lay doon ci yow waxuma laak bu amee temps d'antenne bu mel nii toogee ko ci plateau bu toll ni ci général gëm naa ni tey ñëpp seen xol sedd na moom kay xanaa dañ koy ñaanal rek xam-xam dëgëral taxawaay bi ndax ñun ñëpp ñuy jàngee ci ci ci ñoom tey xëj na moom moo fi toog mais même sentiment bi bu xëj gëm naa ne bu Oustaz Assane toogoon moom la ñuy am bu beneen Oustaz toogoon fii itamit moom la ñuy am parce que yonent bi moo ni mel quand euh, bind yi bari na suñu mag yu baax yëpp bind nañ bàyyi fii ba nga xamante ni euh, tey boo ko bëggee gëm ko boo ci sukkandikoo pour un tout et pour un rien da am pédagogie bi nga xamante ni moom moo war donc dañuy sargal ñëpp ñi nga xamante ni tey seen xol sedd na ay dara gune la goo xamante ni du xale du mag tollu nit ñi mais il est tellement content tey ndax ni mu gis euh, oustaz Pape Anne def yàlla na ko fi yàlla yàggal. allahumma amin gën gi mindeef la ñu ko tuddee moo tax El Hadj mindeef moo waxtaanee mindeef mi ñuy waxtaanee la gën. bay Cheikh man ki may njëkk gërëm mooy président yu Ndour sama nabi moo ko génni moo ko fëlal. Mhm. Amadou Baye Gari ndax yaa ngi maa dégg Baye Cheikh. maa ngi dégg bu baax. fii rek laa yéeg ci dëgg ma ci bureau biy wàcc. maa moom nu daje muy yéeg. mu ne Amadou Mbaye Garmi kaay ma jox la cadeau. Hmm. nga foog ni leen leneen la. ma defe ne lu ne la. nu tàbbi ci bureau bi maa moom mu ne ma je te donne une émission boo xam ne day tudd la biir. da teg rek dëgg-dëgg li nga xam ne nii moom la <laughs> ngañ di wax wala fàllu sekk soo paree nga jëli ku la neex. Ah sa géer gu la neex nga di ko tudd. Ah waaw ma ne waa lan la mbay tëdd naa sax j'ai j'ai murmuré. Eh. Baye yooyu du du tàbbi fenn ci nabi yi rek lay mujj. wallaahi kenn du Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko gërëm di ko ñaanal jàmm lu bëree bëri. macha allah. di la wax ne Baye Cheikh Marème Faye Sall première dame bu réew am na mbégte kontaan jigéen ju baax junne naa Ndeye Sali mi nga xam ne moo jiite jigéen ñi bég na Baye Cheikh Aminata Mbengue xaali su leeg sargaan tabaski faa muy mu ca Dagana ak xaalifa muy mu ci Louga Baye Cheikh kontaan maa ngi lay wax ne Baye Cheikh am na beneen soppe bu mag boo xam ne bile isika lañ koy wax ki nga xam ne mooy mooy rangale oto yi borom oto yi sama xarit la ñii jëm Poroxaan mu yóbbu leen ñii jëm Tiwaawoon mu yóbbu leen mm-hmm. moom itam de dëgg dëgg nee na bég na mm-hmm. Baye Cheikh daal tey Pape Hann nag dafa tudd premier bi premier boo xam ne bii bu ñu tàbbee ëllëg ci réseaux sociaux yi doo ci dégg benn wax bu dérange ndax yonent Moustapha rek kay waaj moo jara <laughs> mooy numéro un bi moo jara waxtaane mooy numéro un macha allah Baye Cheikh macha allah kon daal dëgg-dëgg Baye Cheikh daal tey daal uh-huh. dëgg-dëgg Sénégal yi yëpp kontaan nañu uh-huh. waaye mënuma tàbbi uh-huh. te duma tudd ki nga xam ne kii mooy Makhtar Diaw doomu Ndar bu mag bi nga xam ne tubarkalla kenn dara man ak njañ doolu député maire bi nga xam ne lu mu diggee woon ak saali ak ki nga xam ne kii mooy saa mooy Baye Sall Diop def na ko jox na ma kayitu kër gi nga ak man Amadou Baye ah, Gar macha allah waaw kooku daal dëgg-dëgg tey daal bég naa lool jox na sama sobi Pape Anne bég na jërëjëf Mbaye ñu profité ci rek jël euh, quelques téléspectateurs Mamadou Ndiaye xam naa sànq ba tey internet yaa ngi euh, réagir ak hashtag bii di Rasoul waaw tey de vraiment nga ñëpp kontaan nañu comme ni ñu koy defee guddi gu jot sax d'ailleurs benn message rek la ñuy jox oustaz Pape Hann yéen ñëpp def ngeen témoignage yi. Mm. xanaa wane tweet bi rek muy signifié nii lii la internaute yi wax. seen wax benn la au final oustaz Pape Hann le peuple thème. maanaam bëgg nañ la ci waxtaan bi surtout taxawaay bu am solo bi nga xamante ni taxawaay nga euh, taxaw nga ko surtout tey waxtaan bu am solo bi nga xamante ni def nga ko lii li ma li mooy résumé li nga xamante ni internautes yi wax nañ ko tey ji ci guddi gu neex gi nga xamante ni tàmbali nga ko nekk lu am solo en tout cas réaction yi bari na ah. suba nag incha allah xam naa dina ñëw def benn bilan un peu analyser bu baax li nga xamante ni jot nañ ko def ci weer bi hmm. mais surtout hashtag bi nga xam ne bokk na ci hashtag yi ñu gën a utiliser Sénégal ci weer wi voilà mu ngoog loolu am na solo macha allah rek macha allah. Mhm. li waykat bi wax sama rakk ji ne leen ko macha allah nu mu tuddati moomu sama sama sama sama rakk jooju. macha allah ne leen ko macha allah noonu la ko waxee woon kon ne leen ko macha allah moom yaa oustaz donc yóbbante yaa ngi euh, yegg euh, ñu jokkoo ak euh, yeneen ci ay téléspectateurs yoo xamante ni très rapidement bëgg nañu quand même def ay contribution mais kuñ ci jël rek mm. may ñaan waa régi régie Cissé ngeen wax leen itam ñu tënk puisqu'il est déjà quatre heures du matin te noppee guñu ci gën gi mbindeef ki ñuy waxtaane tey borom barrière or ba ca Médine am na ñu xëdd na ñu dugg ci ruq bi am na ñu dugg am na am na ñu dugg ci ñu ko dégg léegi ñu jokkoo ak euh, sunu beneen xarit di Ousmane Noël Dieng euh, di nit ku baax ku bëri valeur moom it euh, baax na ñu boole ko ndax nabien la Adja Kouna Fall ca Yène moom tamit nabien la ñu ngi koy ndokkeel bu baax bëgg lool monsieur le maire de Yène Gorgui Ciss moom it ñu ngi koy ndokkeel bu fekkee jàpp nekkoon ci ginnaaw ñu jokkoo ak nowel Noël Dieng euh, sëñ Ousmane ñu ngi lay nuyu euh, di la ziar gërëm la ci euh, nangul bi nga ñu nangu jokkoo bi tey ci guddi gi nga xamee ni télévision Futur Média Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ko jagleel ñu ngi lay ziar bu baax Dieng. bul dégloo ak télé bi Ousmane déglul ak portable bi. asalaamaaleykum sëñ Pape. waaw sëñ Ousmane. day leen di organiser waale ci ginnaaw di avertir sensibiliser balaa Serigne Pape maa ngi lay ziar asalaamaaleykum aleykum salaam ñu ngi delloo ziar sëñ Ousmane di leen di leen nuyu ci baat bu gën a sell ci baatu asalaamaaleykum di nuyu Oustaz Pape Hann ak Serigne Ngagne ak suñu fàllu set ak ñëpp ñëpp ñu toog ci plateau bi yëpp baa ngi la nuyu di leen ziar rek ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay moom moom soppay si allo sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg. waaw man sëñ pam waaw waaw waaw Ousmane. xam nga xam nga bu dee dëgg neex yàlla. Hmm. man mi bokkoon naa ci wax na nañ bàyyi ñu ñuy waxtaanee ci plateau yi ndax kër sëriñ si yaa may dégg. maa ngi dégg bu baax. niveau bi am niveau bu tey TFM niveau bu mu am tey émission niveau bu mu am billahi la si laay laaw mosu ko am barke yonent yàlla Muhammad jërëjëf jërëjëf yaay nabiya yaa ko bëgg aluna ngir ngir jëmm Seydina Muhammad laa wax wallahi niveau bi niveau bi tey TFM am tey man man bu la dëgg neex yàlla du ma naa fekk man bokkoon naa ci ñoo xam ne waruñu waruñu di waxtaanee sëriñ di leen féewale di ga di def yi di gaaro di gaaro wàll waaye tey Pape Cheikh li ngeen def tey mm-hmm. billahi lazi laa ilaaha huwa yal na leen yàlla fay. allahumma amin allahumma amin allahumma amin. yal na leen yàlla fay dama kontaan dama bëgg. jërëjëf noonu la ba tax ngir jëmm yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam damay joxe addiya laay ni ko joxe addiya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. ci ñaata la tollu Noël. ci un million cinq cent. yaa baax. yow Pape Cheikh dama la jox téeméeri junne yow. oh. jox Pape am téeméeri junne. jox Fallou seen téeméeri junne jox ngañ téeméeri junne. ndaw téeméer téeméer. ndaxte dama bëgg man yonti bi yonti bi laa bëgg. sallallahu ku may nax yonti yàlla Muhammad bëgg naa. loolu mooy àddina. ku may romb na ma sax shérif laa shérif laa soo ma waxee shérif laa man nga moo xam nga doon ko wala nga ñàkk ko doon bëgg naa ngi jëm yonti yàlla Muhammad ku ma nax yonti bi bëgg naa. da bëgg ku tedd kii wallaay. tey def day fas yéene wu ma nelaw fee parewu leen. jëm huit heures man maa joxe mais tey suba. monsieur le ministre Diène Farba Sarr dina def li ma def. incha allah. waaw loolu laa waxoon damay tënk rek wax ci ndigali sama sëriñ sëñ Moustapha Sy bu Seydou Nourou. wallaay kontaan nañu de. bu Cheikh Seydi Hadji Malick radiyallahu taala. kontaan nañu de kontaan nañu de. nuyu na Ustaz Pape nuyu Ngañ nuyu plateau bi ñu fi nekk yëpp kan yàlla guddal seen xañ. Boubacar jërëjëf jërëjëf. franchement je suis très content léegi léegi léegi léegi léegi message dina ci addiya bi may joxe ngir jëm rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma sama addiya gi noonu naa ñu ñëw léegi léegi léegi jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Pape kontaan naa trop loolu laa waxoon naa ko def mënu ma woon la te oote wu ma jërëjëf kontaan nañu noonu la ndax da ngeen da maa laal wallaay koo laal mu yëngu yéen ci biir laa bëgg wallaay sallallahu alayhi wa sallam ñàkk koo bëgg woon kontaan naa trop yàlla la yàlla fay jërëjëf jërëjëf Ousmane Pape Anta da nga alu sama waaj da waa yow yow yow moom ku wax ci Seydina Muhammad tuuti nga daanu yow yow yow Rasulaay doo nga bëgg. wallaahi sallallahu alayhi wa sallam. waaw alaaj Pape at mu jot mu yóbbu ma Kaolack maag ngañ mii ak saam ñu ngi defal ko fa gàmm gu mag. Mm. waaw teraanga bu ne da koy def da Rasul Rasulaay da ko jaral lu ne Ousmane. yàlla na yàlla barkeel la yàlla sàmm la. Mm-hmm. yàlla bu la kenn ëpp ëppale ci Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf Dieng kontaan nañu baax. ñu ngi koy gërëm bu uh-huh. baax uh, ci uh, contribution boobu nga boobu mu def lii mooy dëggal li may faral di wax rek. ku ñu ku ñu ku ñu yëngal nga yëngu ku ñu tudd ci ku ku ku ñu ku ñu ku ñu ku ñu bégal ci li nga bëgg ak ci ki nga bëgg nga yëngu moo tax yenn saa yi nga euh, euh, dugg ci fenn foo xamante ni peut-être mën nga cee bañ a yëngal nit xel ma dem mu ne da ngay jaxasee tarixa mhm. donc sama réponse bi daal lii yëpp réponse la ndax euh, man tout tànk laa bi ma juddóog léegi yàggul de aw ma waaru jaxase <laughs> kon maa bëri pouvoir kon donc yàlla na jàmm yàgg yëpp ay firnde la rek. Mhm. ci leeru Seydina Muhammad euh, sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. donc euh, ñu ngi koy gërëm bu baax moom Ousmane Noël Dieng. Euh, ci euh, contribution boobu am na itam beneen téléspectateur bu bëgg a contribuer euh, Moustapha Cissé noonu ko jël moom it nit ku baax la ndax nabien la. Mhm. bu ko defee ñu déglu contribution très rapidement ah nit ku baax la Moustapha Cissé kon tey mën nga ni waa pays ba ca Kaolack ñoom itam teew nañu. dégg nañu ah gisoo ni ba tey ñoom Seere Adjot Fat Samb imam Cheikh Tidiane Cissé ñoom ñëpp a ngi seetaan bi. Fat Samb ma nee ah ben voilà voilà <laughs> kon la allo. allo allo allo euh, voilà donc ñu ngi koy euh, lambaat moom Moustapha Cissé bu ñu ko jotee rek ñu euh, àggali puisqu'il est déjà 4 heures du matin tey kenn nelawul nelawul lii la xale yi tuddee freestyle oustaz Papane des freestyle Euh, Chérif ay dara euh, di superviser euh, bu ne dina ci indi ay explication yu ngeen gën mën comprendre bu ko defee bu ñu demee ba ci jeexitalu jotaay bi daañu conclure mu doon ngëneel pour képp ku di jullit wala nga dib nabi nabien sopp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo jara waxtaane ndax mooy gën gi mindeef voilà li woykat ba ne woon ku ma gën ma gën la géer moom la Moustapha Mbaye bàyyi tar ba naan ci joojo way moom foofu rek la ko jàpp moom ci joojo way moom wa neexee rek mu ne yooyu yëpp ay àll yoo xamante ni <laughs> oto dafa jooyo jooyo jooyo jooyo jooyo ba foo ne Moustapha Mbaye ñu ne ana rongoñam yi yonent bi jar na ko Euh, nit nag bàyyi leen bu dee daanu ngeen di dee daanu. woo naa ko nag alaaj Pape ku nekk ak li nga yëkk. tey tey waroon naa ñëw. waaw wallaahi ndax nee naa ko réew mi kenn du fi waxtaanee Seydina Mouhamed. te spécial te ndax xalaatoo Moustapha Mbaye mm-hmm. euh, xaw a taw tuuti rek. Mm-hmm. ak coono yi jàpp ko. Mm-hmm. ko kon ma jéggal la. wallaahi euh, nu ngi koy ñaanal yàlla dolli ko wér. wallaahi yàlla dolli ko sàmm Moustapha Mbaye alaaj Pape. macha allah kon defe naa jot nañu Serigne Moustapha Cissé moom it wooteem def ñuy neex yaaram ñu ngi lay nuyu la ziar ndokkeel la gërëm la ci nangul euh, bi nga ñu nangul jokkoo bi tey ci guddi gu mag gi ñu jagleel euh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay ziar Cissé. allo. allo ñu ngi lay ñu ngi lay dégg ñu ngi lay ziar. yàlla nangu ziar aleykum salaam wa rahmatullah. marhaba bikum wa ahlan wa sahlan ñu ngi nuyu ñu ngi lay fay. di nuyu oustaz euh, Pape Anne mm-hmm. ak euh, Pape Cheikh Diago ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi teew foofu ci plateau bi. Mm-hmm. di nuyu waa TFM yëpp. di ndokkeel Sénégal ci émission bi nga xam ne wax dëgg yàlla émission buy jëriñ jaamu yàlla yi di jëriñ jugit yëpp. jërëjëf. ñu waxtaanee ko ci réew mi waxtaanee fii ay kilifa yu baax a baax. Mm-hmm. wax seeni jàngale ñoom ñëpp. tey nag ñu ñëw di ko tëjee ak uh, sangi-sang yi hmm. ki nga xam ne moo tëbb ñëpp muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa ñu leen di ndokkeel ci googu bu baax a baax a baax jërëjëf Cissé uh, te di ngeen gërëm di ngeen wan na ngeen gii rek mooy jëriñ réew comme réew mi dañ fee nekk hmm. bëgg yàlla bëgg yonent bi bëgg nit ñu baax ñëpp kon jaadu na pour ñu ngeen di jàngal seen diina di ngeen jàngal seen mag yu baax yi nga xam ne ñoo fi jaaroon. force la waaye bu ngeen jàngalee mag ñu baax ñi ba pare yi. jaadu nañu jàngal leen sangi mag ñu baax ñooñu. ala kulli yàlla muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mhm. mi nga xam ne lépp lu yàlla bind. Hmm. moom moo tax yàlla bind ko. Mhm. nee na ana min nuurillaahi wal mu'minuuna min nuuri moom moo jugee ci leer ak yàlla ji. Mhm. jugit yu baax yeeg. mag ñu baax ñeeg wëgg yu yàgg yeeg ñoom ñëpp ci leeram lañ jugee. Mm-hmm. te dundam yëpp jàngale la boo xam ne jugit yëpp war nañ koo xam. Mm-hmm. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def ko wax ne ko. Mm-hmm. wa man yuti illaha maanaam kuy topp yàlla rek da ngay topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te nit mënoo koo topp te xamoo donc pour nga roy ko. xam jikkoom mën ko roy il faut nga xam jikkoom boo mm. xamee jikkoom nag di ko mën a roy mm-hmm. te boo ko royee rek texe moom rek nga ñuy roy pour texe moom mooy imam yi bépp yenantu bu mës a ñëw moom mujjee ñëw de waaye moo gën yab ak ñoom ñëpp ñu ñëw mooy seen sang mm. kon suñ mag ñi nekk fii tamit Sénégal ko dagay si xaj Maalik ak xaj Abdullahi Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Ibrahim Niass euh, képp ku mës a ñëw rek yonent bi sa mission yonent bi sallallahu alayhi ga sallam nga ñëw. Hmm. di ko gën a gaar ak jaamu yàgga yi di ko gën a àggage ci xog yi jaam yi. mooy seen mooy seen te moom ci boppam dafa wax ne. Hmm. laa yuminu ahadukum xatta akuna ahabba ilayhi min waalidihi hmm. wa waalidatihi wa naasi ajmain nee na nit ngëmam du mat mukk gudut ne man nga gën a bëgg. ci waaye juram yi man nga gën a bëgg ci mbindeef yi yépp mm-hmm. kon bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekk loo xam ne lu war la mm-hmm. dafa war bépp jugit yàlla musuñ koo dégg ci alquran mu ne damay jugi wala damay oor wala bépp lépp lu mu digal jaam yi rek jaam yi ñoo koy def mm-hmm. ba mu des jugi ci yonent bi ci nga wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima nee na moom yàlla ak maraakaan dañuy jugi ci yonent bi kon yéen jugit maa ngi leen di digal ngeen ni jugi ci yonent bi kon loolu njaam bu yàlla boo xam ne bu koy jugit bi di def mhm. dafay def loo xam ne yàlla moo koy def moo ko njëkk a def digal maraaka ñu def ko daal di ñetteelee jugit yi mhm. nañu def ko mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alayhi biha asharan képp ku jugi ci man benn yoon yàlla jugi ci yow fukki yoon Mhm. képp ku jóge ci man fukki yoon yaa ngi jóge ci yow téeméer mhm. yoon. képp ku jóge ci man téeméer yoon yaa ngi jóge ci yow junne yoon képp ku jóge ci man junne yoon. texe nga àddina ak àllaaxira yaa nga bind na nga musal nga ci safara musal nga ci nifaaq musal nga ci kufur. di julli ci moom kooku mooy sang-sang yi suñu wàllu nekk ci Sénégal yëpp. Mhm. Cheikh Ibrahim Niass Hajj Malick way na ko ci xilaas zahab gis ngeen Cheikh Ibrahim Nuurul Basar jaar-jaaram ak dawaawinam yëpp nga xam ne bëgg yonent bi nga sallallahu alayhi wa sallam daf doon wax sax ne moom xaagi ma ak Moustapha laa aqla yudrikuhu salla mhm. alayhi ilahi munzilul kutubi nee na dem na ba àgg ak yonent bi ci diggante boo xam ne maanaam xel sax mënu koo daj noonu nga Sidi Xaaj Malick mel ak moom noonu nga xaaj noonu nga Cheikh Ahmed Bamba mel ak moom noonu nga wëg yu yàgg yëpp mel ak moom kon tey bu ngeen ñëwee di jàng di indi njàngaleem yaakaar naa ne plateau boobu képp ku fa toog texe na képp kuy déglu tamit texe nga ñu ngi ñaan yàlla ci barke yonent bu màgg boobu nga xam ne moo baax mooy jëmmi baax yàlla barke leen ñoo yéen ñooñu yokk leen ci zaahir ak ci baatin yàlla musal réew mi ci virus bii nga xam ne mu ngi daj àddina musal ci Afrique musal ci Sénégal amiin di nga ndokkee ak yow Pape Cheikh Diallo ci sa initiative bu rafet ci diine ji ak ci këri diine yépp mhm. euh, di nga sant bu baax ci turi waa kër Cheikh al Islam al Hajj Ibrahim Niass di nuyu suñ xalif Cheikh Ahmed Tijani di nuyu xalif général Tijani mhm. muy Serigne Babacar Mansour di nuyu Cheikh Mouhamadul Mountakha di xalif général bu murid di nuyu mbooleem xalif généraux yi nga xam ne ñu ngi nekk ci réew mi. jërëjëf di ñaanal jugit yi yàgg dafa ngeen jàmm. Mm. di nuyu soxna yi fa nekk di gërëm oustaz Pape Hann. macha parce que dafay def ay émission yu am solo foofu ci Siira Nabawiya. di jàngale jaar-jaar yi yonent bi dundam na nga nekkee woon ak ay soxnaam. Mm-hmm. nan nga àndandooree woon ak ay saxaabaam. Mm-hmm. te googu mooy li nga xam ne moom mooy defar jugit dëgg parce que jugit mënta nekk jugit lu dul ne dafa roy yonent bi laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana moom nga yaabe wax kon yéen bu ngeen ñëwee di jàngale jaar-jaari yonent bi yéen a ngi jàngale diine yéen a dëgg jàngale dëggi dëggi ngi kontaan ci émission bi di nuyu Chérif mi nga xam ne mu ngi toog foofu ak Alaaji Garmi ak kilifa yi nekk foofu yëpp di leen sant di leen gërëm di wax ne ñu rafet rafetlu bu baax participer ak yéen guddi gi ak guddi yi jiitu yëpp depuis bi quartier général commencé bëggee jëran di trois troisième saison bi. Mhm. ñu ngi ciy jëriñu bu baax di ci gis ay borom yi xam-xam ñu ngi gën a xam ak suñu mag ñi. Mhm. ak valeur yi nga xam ne am nañ ko. macha allah kon loolu yàlla ko yàgg def ci seen misaanu xasanaat. Mhm. yàgg a yokk ngeen yàgg a barke ngeen. di ngeen gërëm bu baax a baax a baax. di ngeen sant Cheikh euh, Pape Diallo Oustaz Pape Hann ak mboolem ñu nekk ci plateau bi foofu. Ah. jërëjëf sëñ Cissé nit ku baax la u Oustaz. kontaan nañu sëñ sëñ Moustapha. Euh, surtout Cheikh al Islam la. Mm. waaye tey jii wooteem bi wootee na euh, njabootu Cheikh al Islam gépp njabootu maam Khalifa njabootu Alaaji Abdoulaye mm-hmm. Alaaji Pape tey jii Touba kenn nelawul mm-hmm. soxna may galas mu sëriñ fàllu mm-hmm. day su may def siira de doom ji da koy xool rek gis ba di néew yi daggal na ma pàkk ndindi bërki démb mi ngi noonu mu ne ko xanaa Pape an ngay seetaan moom nelawul soxna may mu sëriñ fàllu cofeelam ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaw ñoom ñëpp rek Alaaji Pape soppe yëpp kenn nelawul tey macha allah sëñ Abdourahman Ndaw waaw sëñ Abdourahmane Ndaw seex bi seex euh, bi seex Abdourahmane Ndaw bi lii ma sol ah. alaaj Paap ah. euh, moo moo ko moo ko ñaw mm. xam nga liy ñaw loxo la buy jël temps mm-hmm. jox ma ko mm-hmm. ne ko ne ma maa ko def addi rasul yamu ci ah. mbaxana mi waa kër Baye xam nañ li ma wax xam nañ mbaxana mi bokk na ci mbaxana yi gën a cher mm-hmm. mu jox ma ko ne ma maa ko def addee rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi ma koy jox xalaatul woon ni tey ji laa koy sol macha allah waaye ma xam ni moom lu lu teraanga bu mu ñu jox rek Seydina Muhammad tax Cheikh Abdourahmane ma ne naa ko bégalee ci su tey bii jërëjëf kon nu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla yokku soxna allahumma amin soxna Muminatu Kebe Euh, soxna mu kël suum Njaay ah. euh, umu provocation yaalikumba Fall euh, Njaay nee na ma ñiy tagg Seydina Muhammad mhm. dinaa leen teral teraanga goo xam ne dama ko wax nabiyen ak ak ñeneen nabiyen yi nabiyen yi ñëpp a ngi toog nabiyen la waaye Mouhamed Abdoulaye Thiam nag wax nga ko léegi sedd yàlla mille cent onze poèmes wala da nga socc le sauveur mhm. génération bi ñi nga xam ne dégguñu arab mhm. livre ba boo jotee alaj pap mm-hmm. di nga gën a bëgg Seydina Muhammad maanaam boo mënee lire français tuuti mm-hmm. Mm-hmm. sa sa cofeel ci rasulullaay di ko gën a yëg nu ngi koy nuyu nuyu waa fondation Kër Rasoul nga xam ne moom i dafa jël dundam jël léppam jox rasulullaay lu mu am moom la ko tuddee uh-huh. Mouhamed Thiané Diop <laughs> doom ji mu am rasulaay la ko tuddee nabiyan yooyu moom it doog xoolal góor ak jigéen ñëpp Seydina Mouhamed alaaj caane Diop noonu Mouhamed Abdoulaye Thiam di def euh, nabiyan yi daal mhm. su ma leen di lim fi laay fanaan alaaj wallaay nga delluwaat ak ñun euh, dañu a déglu Chérif Boubacar Aïdara dañu bëgg a déglu euh, nga àggali dañu bëgg a déglu Pello diggante Ngañ ak Fallou Galas mhm. a dégluwaat li neex wala lu neex li ñu doon yëg sànq ba tey ci loolee la ñu bëggoon delluwaat xanaa profito ci rek rek mhm. ndokkeel ay euh, euh, nabiyen euh, bokk na ci ndey màgget Cissé Ndeye Maguette Cissé Amina mhm. Poté mu ngi may xamal ni Ndeye Maguette moomu soppe nabi bu mag la moom it fa mu nekk kontaan na ak ki nga xam ni mooy yaayam Marie Amar ajot Marie Amar mu Cheikh moom defe naa tey kontaan na lool Euh, di ndokkeel itam yeneen i yeneen i nabiyan yoo xamante ni euh, ba ci euh, ba waxtu wi. Mhm. ñu ngi àndandoo ak ñun kon Oustaz Assane ñu delluwaat ak gan yu tedd yooyu le bu ko defee ñu mën a accélérer ndax dañoo mhm. bëgg a yëg. yi ñuy yëg depuis sànq. Mhm. waaw jërëjëf Baye Cheikh macha allah yaakaar naa tey ñëpp bëgg nañ. ndax ki ñuy waxtaanee moo ni toll waaye xajul si génn gudd moom Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngañ euh, Maodo Malick Mbaye nee na mu ngi leen di jottali nuyoom ak ziyaaram di leen ñaanal yàlla yàlla gën leen dëgëral ndax moom itam maamam ci yoon wi la bokkoon macha allah doon way Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, oustaz Pape. Mhm. jamono bu nekk ak la say xew. Mhm. ki nga tudd sànq di euh, fondation Kër Rasoul. Mhm. missionnaire la. dafa fexe ba ndaw ñi langue bi bi ñu gën a miin muy français mu wax si kan mooy Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te boo ko jàngee da nga bëgg rasulullahi mhm. mais di nga gën a xam kan mooy Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam macha allah kon yàlla na ko yàlla gën a dëgëral sàmm ko ak mbooleem njabootu Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oustaz yaa ngi woon si benn lancé bu doy waar mhm. muy Seydina Ali mhm. karamallahu wajha yaa ngi doon wax ay xare ya nga xamante ni xare na ko ngir waxtaan ak ñun si njàmbaaram mm-hmm. waaye njàmbaar gu mu am rek mu ngi ko jëlee si rasulullahi mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam njàmbaaru Seydina Ali karamallahu wajha balaa ñuy duggaat si Seydina Muhammad da ngeen ma koy téyel fenn sallallahu alayhi wa sallam ma wax la tuuti balaa maa jox Serif mu laaj ma moom ci njàmbaaru si naalu mm-hmm. karamallahu wajha njool màkk dafa toog ak saxaaba yi benn saay-saay bu ñuy wax oru amar wëddi daa ñëw dëkk dëkk mal rasulullah yi poussière ba jug mu rëppatal naaru góoram ne yow mu ibn Abdullah yaay wax ne yàlla la yónni yow yaa wax ni ku dee ci yéen dem aljanna ku dee ci ñun dem safara mm. na kenn ñëw léegi léegi ma yóbbu ko aljana mbaa ma yóbbu ma safara mm. oh, waaye téel leen ma ko fenn waay deer indi leen beneen waaliyun deer indi leen beneen lama tafalta bi deer waxuma aliyun feneen fu ngeen ma ko téyel rek bu bu yam rek laka mujizaatun ajazat kullal wara waxandoo leen ko laka mujizaatun ajazat kullal wara waa ana waa kër rasulullahi laka mujizaatun ajazat kullal wara ndax boobu jamono Omar ibn Wadi moo mën ci góori àddina laka mu'jizatun a'jazat kullal wara mu naaru góoram joxoñ rasulullahi laka mu'jizatun a'jazat kullal wara ne yow yaay wax ni yàlla la yónni ku dee ci yem dem aljanna ku dee ci ñu dem safara laka mu'jizatun a'jazat kullal wara ma kenn ñëw léegi ma yóbbu ko aljanna mbaa mu yóbbu ma safara ci Mbàkke ne ko bàyyil ma dajeeg moom laka mu'jizatun a'jazat kullal wara waxaat ko waxaat ko waxaat ko laka mu'jizatun a'jazat kullal wara njool Mbàkke ne Aliyun toogal kii Omar la laka mu'jizatun a'jazat kullal wara Omar ne yéen a wax ku dee ci yéen dem aljanna ku dee ci ñun dem safara laka mu'jizatun a'jazat kullal wara na kenn ñëw yóbbu ma safara mbaa ma yóbbu ko aljanna laka mu'jizatun a'jazat kullal wara Aliyun buftandiku ñëw ci Seydina Muhammad ne ko bàyyil ma dajeeg moom laka mu'jizatun a'jazat kullal wara njool màkk ne ko Aliyun toogal kii Omar la laka mu'jizatun a'jazat kullal wara boobu Omar ibnu Wuddi mën ci guuri àddina laka mu'jizatun a'jazat kullal wara yahud yaa ngay tàccu yéefar yaa ngay tàccu julit ñaa ngi sëgg Aliyun a ngay buftandiku laka mu'jizatun a'jazat kullal wara Aliyun xool xool ñi war ci njool màkk ne ko bàyyil ma dajeeg moom laka mu'jizatun a'jazat kullal wara nabi ne ko Aliyun aliyun wax naa la nga ni toogal kii du kii Omar la. laka mu'jizatun ajazat kullal waraayun. sidna aliyun ne ko bu dee Omar ma ne Ali. laka mu'jizatun ajazat kullal waraayun. Oustaz Assane maa ngi la bëgg a wax njàmbaru sidna aliyun. su ngeen defee nii ajazat kullal waraayun. Sidina Muhammad xam ni pexe jeex na mu bàyyi aliyun. laka mu'jizatun ajazat kullal waraayun. aliyun dugg ci biir sol sol du xare. laka mu'jizatun ajazat kullal waraayun. ñëw jàkkaarloo ko Omar ibn Wadi. laka mu'jizatun ajazat kullal wara. njool ma ka ngay ñaan ma noonu yàlla kii laa dese de. la ka mu'jizaatun adadar kullal الورى ينم جعفر دينا جخري خري أحد لك معجزات أعجزت كل الورى داري حمزة دينا جخري أحد لك معجزات أعجزت كل الورى مونيكو خيلو دينا لك معجزات أعجزت كل الورى جعفر غدس جعفر غدس جخري مؤتتا سنجد فيني أعجزت كل الورى يوم كان ينان يالا كيلا دسيني في يمين الإسلام يمفي لك معجزات أعجزت كل الورى أبكر غي نان كو يالا دولا غاتيل يا رسول الله لك معجزات أعجزت غدر كل الورى مصطفى ربي لا ترزي لا تزرني وانت خير وارثينا لك معجزات اعجزت كل الورى ابو بكر نان امين تي جوي مم سيدنا ابو بكر لك معجزات لك معجزات اعجزت كل الورى علي جكار لك سيدنا محمد لك معجزات اعجزت كل الورى نكو ñaanal يا رسول الله من علي لك معجزات اعجزت كل الورى سيدنا علي نيو جكار لك عمر بن ودي عمر نكو ياي كان لك معجزات اعجزت كل kullal wara mu ne ko mën a Ali laka mu'jizaatun a'jazat kullal waraa. Omar ne ko yaay kan wax ma yaay kan. laka mu'jizaatun a'jazat kullal waraa. Ali ne ko ana Ali wa nisbati bayna al-arab. ana ko sopp yonent bi a'jazat kullal waraa. Abu imaamayni kiraamin bararatu. laka mu'jizaatun a'jazat kullal waraa. maa Aliyun kii sunu ñaari baay bokk ndey laka mu'jizaatun a'jazat kullal waraa. am naa te ñaari sang muy Asan ak Useynu samaam. laka mu'jizaatun a'jazat kullal waraa. ci ginnaaw doomu Fatima ana soppayu yonent bi ajazat kullal wara Amar ibn Wahb dina ko doom du ma xeex ak yow laka mu'jizatun ajazat kullal wara yow doom sa baay Abu Talib sama wëllëree laka mu'jizatun ajazat kullal wara yow doom demal toog du ma xeex ak yow laka mu'jizatun ajazat kullal wara ci naa li ne ko araam na ci ñun ñuy sol solinu xare te duñu xeex laka mu'jizatun ajazat kullal wara ali ne ko xanaa ci condition mooy nga sànni sa jaase ji raam wutali sa ngóor nag alaxira jox ko sa njébbal laka معجزات أعجزت كل الورى wala ma jox la délai six mois nga xoolaat sa bopp ñëwaat ci géew bi. laka mu'jizatun eh. a'jazat kull al-wara mu ne ko doom man góor musuma jox délai. laka mu'jizatun a'jazat kull al-wara doom boo yaakaaree ma jébbalu ci waa ji sa affaire bi kon kon xamoo li xew. laka mu'jizatun a'jazat kull al-wara Sidi Ali rocc dun xaf ba jaasi ne ko wanaa la ci kii. laka mu'jizatun a'jazat kull al-wara Amru ibn Wuddi Sidna Ali poussière baa ngay jóg. laka mu'jizatun ajazat kullal wara yahud yaa ngay tàcc jurit ñaa ngi toog nii njol màkka ngay ñaan laka mujizatun ajazat kullal wara abakar ngeen amiin rek la gorot laka mujizatun ajazat kullal wara sayyidina muhammad nga naan yàlla bu fa yemee lislaam bi yem fi de laka mujizatun ajazat kullal wara yàlla jàmbaar ji laa dese sama rakk ji laa dese yàlla ku sopp sayyidina muhammad ajazat kullal wara ñu jékki-jékki ba xàmmeetuñu sidna omar sidna ali nag omar bi wuddi laka mujizatun ajazat kullal الورى يجيك جيك ديك كرن الله أكبر أينا لك معجزات أعددت كل الورى علي رين عمر بن ودي تون تي توك تي دن الله أكبر لك keroog la njool màkk ni bu mu laal suuf ñu yemul ko Seydina Ali indil ko keroog la Seydina Muhammad ni bu jurit ñëpp tëdd di nelaw gontal Aliyun nii mu sagalee lislaam ku sopp Seydina Muhammad ajazat kullal wara tey nii bu ko ko yàlla fayee ñëpp dem aljanna bokk la keroog xare Xaybar ba mu jàkkaarloog Mirhab nabi ku mu jox drapeau bi doo indi ndam ah, keroog la rasul woo Muhammad bun Maslamata. ne ko ëllëg naa jox drapeau bi góor goo xam ne yàlla bëgg na ko yonent bi bëgg na ko. Muhammad bun Maslamat ne ko koy jox drapeau bi mu ne ko Aliyun. Muhammad bun Maslamata ne ko Aliyun dafa wàññi si daa feebar mënul xeex. nabi ne woo leen ma Seydina Ali. laka mu'jizatun a'jadat kullal wara ali ne nga jël morso muuree ko kanam nga ndax bët yi metti laka mu'jizatun a'jadat kullal wara mu la jàkkaarloog rasulullahi ku sopp sayyiduna muhammad a'jadat kullal wara yo nabi ne nganam nganam nganam nganam nganam nganam tëf ca bët ya la ja weex ne tàll ci ñulli ko laka mu'jizatun a'jadat kullal wara rasulullahi téye drapeau ba jox sidna ali laka mu'jizatun a'jadat kullal wara yo waa xaybar dem ci mir xam ne ko julit ñaa ngi faagaagal ñëwal dimbali nu mir xam ni loolu laa doon xaar sol solinu xaar yaa ji téye loxo ne ko ginti naa ñu ne ma di nga dee ki lay rey ay dara lay sant iblis soppali ku jëmmi doomu aadama ne ko jàmbaar ju toll ni yow nga dëkk mal dem xare say ay di la découragé loo mir xam tourné pes yaa jamu daanu ne ko jàmbaar ju toll ni man xaybar yaakaar ma nga may découragé mu'jizatun ajazat kullal wara mi xam ñëw jàkkaarloog Sidna Ali ne ko yaay kan laka mu'jizatun ajazat kullal wara Ali ne ko yow laay laaj yaay kan yow laay laaj yaay kan laka mu'jizatun ajazat kullal wara mi xam ne ko xad aliman xaybaru anni mirhabu laka mu'jizatun ajazat kullal wara saaki sillahu batalul mujarrabu yow nabi laka mu'jizatun ajazat kullal wara man mirhab dëkk bi xam nañ may kan laka mu'jizatun ajazat kullal wara sama jaasi ji wallahi musuma jàkkaarlu buur te fanaane wu alaxira ana soppa yi yonen ajadar kullal wara yonen mi xam ne Aliou ñëw yaay kan alaka mujizatun ajadar kullal wara Aliou ne ko man la sama ndey tuddee gaynde ba may liir laka mujizatun ددر كل الورى أنا الذي سمتني أمي حيدرة لك معجزات أعجزت كل الورى كليث غابات كرح منظرا لك معجزات أعجزت كل الورى وفيهم بشاح كيل صندرا وأنا صبي ينتبي أعجزت كل الورى من لسمن داي تدي جاي نبمي لير ما يعليو لك معجزات أعجزت كل الورى يا يم دفدو كتي الله بي بايكو تي كرجي جا نانغور راموتلي عليون عليون راموتلي جاسجا yëkkati jaasi ja wëlbatiku teg ko ci digg jaam ja jaam ja xar ñaar ndeyam ñibbisi xool Alioune xool jaasi ja xool jaam ji tuddee ko gaynde Alioune ni ko ana lazi samat ni ummi haydara ka laysi ghabatin ka rihin manzara ufihimu bi saahi kay la sandara laka mu'jizatun laka mu'jizatun laka mu'jizatun eh! adadar kullal wara mirhab sidna Alioune poussière baa ngay ñu nga dugg ci camp bu ñuy wax xisnu siqi am na beneen camp bu ñuy wax xisnu nataat buntu yafa am fukki ponkal mënuñu ko yëkkati mirxab dagg porte ba yëkkati Alioune tëkkati benn ba dun xaaf ba mirxab wër sidna Alioune laxatu ci benn garab pour doxee ko ginnaaw Alioune dog garab ga mu daanu jël dun xaaf ba dog ko ci bopp mirxab ba ci dëgg jë mirxab daanu nabi ne ba mu laal suuf ñu yëkkatoon sidna Alioune indi rasulullah yi njool makka ne bu nekkul nooni balaayu musawa aha aha ay ci nooni musawa njàmbaar ci moom la yam sidina aliyun jëflante nag ñoom hakada di rey ba rey kem kattan billahi billahi laka mujizatu ajazat kullal wara barakallahu mu rax Seydil Hadji Malick ne saaba yooyu xaaral bul way de waxumu ñooy biddiw asamaan yi xaaral waxumu nujuumul li muqtadin bi samaihim badru dujaa minhu da nga naan in bi in jaaru zalaami minhu mbokka ma bàyyi sëñ Saalu bàyyi sëñ Fàllu ne xuqal bukaau ala saadaati amwaati tabki araadi alayhim ka samawaati xuqal bukaau ala saadaati amwaati aha tabki araadi alayhim ka samawaati wa ana waa kër rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Seexul Xadim nee na yey na jooy yey na nga jooy ba jooy yu métti ñu ko Ahmadul Xadim lu jara jooy imam ma nee na ñi jara jooy mais ñi nga xam ne asamaan a ngi leen di jooy suufam ngi leen di jooy mooy saxaaba yi àndoon ak Seydina Muhammad alaaji asan xare ñaar fukki xare ak juróom ñaar njool màkk fekke nañ fukki ñaar fukki xare ak juróom ñaar nabi yónni na ñin fukk ak juróom ñaar xool ma nabi dafa dafa ab waa dàq leen dem buwaatu dàq leen oseyru mu daq leen xaswatu safaan mu dàq leen badru xitaal mu daq leen sulaymiya mu dàq leen xaynuqaa mu daq leen sawiix mu dàq leen xatafaan mu dàq leen buxraan mu dàq leen xamra mu dàq leen nadir mu dàq leen riqa mu dàq leen mawid mu dàq leen duumatu mu dàq leen muraysia mu dàq leen ahzab mu dàq leen xudaybiya mu dàq leen taif mu dàq leen tubuk mu dàq leen xaybar mu dàq leen xandax mu dàq leen moom muhammadu rasulullahi sëriñ bamba ni ñi àndoon ak sidina muhammad di xeex ba lislaam taxaw ñoo ñoo jara jooy xuqal bukaau ala saadaati amwaati tabki araadi alayhim ka samawaati bàyyi Basiru ak Baara maam ak Cheikh Mbacke góor ga demoon nga moo jaari maa yombe jaari wiir wii waaw borom jaari Ahmadul Xadim tey <laughs> Cheikhul Xadim lil Mustafa xayru xalqulaay manzilatan loo billaahi raamal wara nay la fadrin musriina loo Sëriñ Bambaay wax wal fadlu inda rasulillahi xaaral sërif samaam seexul xadim nee na nit ñi ku ne yaa ngi sàkk pour am ngëneel xam nga teraanga ku ne bëgg na ko ngëneel ku ne bëgg na ko alaaj asan waaye sëriñ bamba nee na ngëneel teraanga ku ko bëgg ci da nga ñëw ci sama waa ji kan raama sàkku na alwaraam mindeef yëpp nay la faddalin amuk ngëneel sëriñ bamba ne cheikhul xadim ni wal fadlu ngëneel day ñu ne ko ah, ahmadu mu ni xaraaru aji sax la inda rasulillahi ci sidina muhammad borom parasol ba bàyyu sëriñ babacar si bàyyu alaaji mansuur baay alxaji Mouhamadul Habib Seydou Aliou Suufi attaqi yi xaamili liwaa yi fi tariqa tijaniyati fi diyaari sénégaliya mawlan alxaaji Malick ibnu Ousmane sëriñ Hadi nee na bari na ko jaamu yàlla dëddu àdduna Seydou Alxaaji Malick bari na mbaba daara mujj bari xam-xam Seydou Alxaaji Malick bari na ko ñàkkoon mujj bari le Seydou Alxaaji Malick ñu ni ko Hadi mu ni kama abidin zahidin kama alimin wariin kam salikin wasilin lawla kama kaana kam tansuru ilma kam taqri duyufa wa kam turdi ilaha wa kam asxata seytaana mawdo kam ista kam silta kam basharta kam wala kam kam kam wa kam summa kam arsata xayrana mam mawdo bazalta maalan wa ilman musriyan li faqirin hadiyan li jahuulin yabna usmaana samaam nee na njàmbaar njàmbaar yi fëkk tëdd mooy saxaaba bi njool màkka yebaloon yónni ko ca bani kaab ibnu najaar wala bani najaar ibnu kaab mooy xaalid ibnu walid ñoo ñoo jara jooy lillahi darul mujibin xaala saailahu inna rasula bi qadril mursili takimi lillahi darul ñaar rek ñaar قدر Darou Seck jërëjëf ca kaw abdalay baay abdu mutalib haasim abdu manaaf mani xusay aduna Mustafa Maka lay julle ne ba fajar dellu si julle gi ñoom fajar dellu si julle gi ñoom suba takkusaan jee fajar dellu si julle ku sopp yonan loxo ca kaw ku bëgg yonan yëkkatil loxo sallallahu alayhi wa sallam sidil awwalin wa sidil akhirin la mawdo yom jaxaay ay waxam du dañu wala na adid nisarat ma'adat man jawisu an allah lahu inna rasula inna rasula bi xadril mursilih tëkki mi baxaru basit la ko def mustafilun failun mustafilun failun moo gën a jafe ci tëgg yi mus sababu xafif la taf sababu saqil la ilun watul majmuu la xafifun mata yuskan wa illa fa didduhu wa qul watadun in zitta xarfan bi lamtira wa sammi bi majmuin faal wa bi diddihi ka faalin wa min jinsi ma juzu xat ata fukki baxaru juróom-benn la bi gën a jafe góor gi wayee ko boobu yenn saa yi mu def ko nëkku yenn saa yi mu def ko xapnu yenn saa yi mu def ko tayyu bu gi ne lillaahi parce mm. que ma yéemati yàlla darul mujibin mbaaxu aji wuyu mhm. saa iloo aji laaj ko lu mu ko wax dañu ko inna rasula naka ndaw bi xaddiril mursili darajay ko ko yónni la yore mhm. ba mu demee ci dëkk ba mhm. nabi dafa ne ko woo leen ñetti yoon su ñu ñetti nga door a xeex ak ñoom si vur leen ma de bu ñu lànkee nga door a xeex ak ñoom xaal nu woo leen wa bari kaab ibn Najjaar benn yoon ñaareelu yoon ba waa dëkk ba ñëw ni ko yow ku la yónni nga ni melal ñu sa waaju nu mel mu leen xool leen ma ndaw lu ne dara jëy ko ko yónni la yore mm-hmm. waa dëkk bi ni ko dëkk bi poison poson ñoo ko dàq defar ci àdduna bi dañuy woo ki ko dàq defar mu defar ñam poisonné ko soo ko lekkee dee woo ñu gëm ni yàlla waaju yàllaa ko yónni mm-hmm. soo ko lekkee dee nga noppal ñu noppal sa bopp soo ko lekkul deewunu mm-hmm. alaaji asan xomara di nga maam déen lii la ñu wax xaal ibnu walid xaal da indi leen ñu jëm ñam jël ñam bi poisonné ko taajal Xaalid ibnu Walid mu ne bismillah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waa dëkk ba di ko xool Xaalid lekk ba suur naan ndox te ñam ba ku ko mës lekk trois secondes nga dee ñu koy xool jullit ñëpp àndandoo naan laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi waa dëkk ba yëpp àndandoo tuub dugg ci lislaam te mooy waa bani kaab ibnu najaar seyd alxaaji malik ni hmm. lillaahi askay ma yéemati yàlla hmm. darul mujiibin mbaaxu aji wuyu hmm. saa ilahu aji laaj ko lu mu leen wax daf li ne leen inna rasula naka ndaw bi xadril mursili daraja yi ko ko yónni la yore mu ne ixtakimi na nga xereñee usaasan rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Chérif mm. sa maam si tedd nga gi si fit wi si tabe gi si mbaax gi mm-hmm. si yërmande gi mm-hmm. waaye si ñeewante bi mu am si xeetam moom rasulullah ndax xare yi fi oustaz Pam ak wax yëpp mm-hmm. boo demee si xilaas Maodo def la ko tënk wi ka magazihi yahdi mubridan kabiran ala xilaafin ataana min dabil xadim Cheikh Seydi El Hadji Malick ngañ ngañ ala xilaafin ataana lay jox. ñi dañ ne la moo de ne 27 la. waaw ñu ne ko bindal waaw ñaata la 6. waaw 6 ka 20. 20 alif. 1 muy 27. 27 chérif dama. la ilaha illallah ay Hassan. Mm-hmm. innama bu'ithta liyutammima makaarimul axlaaq. makaarimul axlaaq. Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam moo ne dañ maa yónni pour ma mottali si jikko yu rafet mm-hmm. benn borom xam-xam ne. Mm-hmm. nekkul jikko yi moom dañoo rafetee moom dafa rafetee ci moom. nekkul dafa rafet ay jikko waaye jikko yi sax ñoo rafet ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi bi sallallahu alayhi wa sallam Pape jërëjëf oustaz allah gis nañ ñu ngi yéegalee dañu wàcce wallaahi macha xamal ne adduna yëpp ñu ngi lay seetaan alhamdulilah mhm. alhamdulilah yéen salaa sallam mooy xadratul jamul jame mhm. yonent bi mooy bërëb bi dajale lépp mhm. ndax mooy njëlbeen moom tamit mooy lu mujj li tamit te axara baad rusulin hmm. wa huwa muqaddamun hmm. fa diddun bi diddin xayara aqala wa lubba sallallahu alayhi Ibrahima wax loolu mu ne axarun moom mujj na baad rusulin ci yonent yi wa huwa moom muqaddam mooy seen njiit ci la lay leen jiit yoon salaa sallam mu ne gën a ragal yàlla hmm. yoon salaa sallam mu ne gën a jege yàlla yunus salaa sallam moo leen gën a bëgg yàlla mm-hmm. yunus salaa sallam moo leen gën a tudd yàlla moo leen gën a jaamu yàlla moo leen gën a toroxlu ci kanam borom mm-hmm. oustaz wax na ko léegi yunus salaa sallam da doon gudd naafila ay guddi mm-hmm. ba ay tànkam di néew yi soxnaam suñu yaay Aïcha ne ko fekkee kenn rek dugg àjjana yow lay nekk macha allah mu ne xanaa bëggoo ma nekk abdan shakuran jàmb sant yàlla allahu akbar yunus salaa sallam mbaaxam bi mm. nekkul def ko mérité lu ko yàlla may la mm. yàlla moo ko tànn def ko def ko lu mu ko def li mm-hmm. waaye daa mel ci dundam mm-hmm. ci laa bëgg oustaz ñëw ci dundam mm-hmm. dafa jàngale moom mooy exemple yàlla mu ne sax soo leen bëggee ma bëgg leen soo leen bëggee yàlla bëgg leen qul in kuntum tuhibbuna allah fekkee bëgg ngeen yéen yàlla bëgg leen yonent bi wax daa ci laminam la dafa ne fa nii topp leen man ku allahu akbar dafa ne fekkee bëgg ngeen yàlla bëgg leen wax la ngeen bëgg ma topp leen ma ngeen wax topp ma la fi laa bëgg ñëw topp moo la topp leen ma fa tabiu nii topp leen ma mm-hmm. soo leen ma toppee même yuhbibkumullah yàlla bëgg leen mm-hmm. bëgg la ak topp ak bëgg mm-hmm. ma sha Allah topp yonent sa sallallahu alayhi wa sallam laa bëgg ñëw tuuti yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ci wax na ko wootewul dara ci lu mu nekkoon wéetal boromam dem xaaru xira gën sànkaa la takk suñu yaay xadijatu radiyallahu anha mu jébbalu ci boppam mhm. jox ko alalam ak lépp lu mu lépp lu mu moom jox ko ko mhm. mu ne ko di wutal yóbbal jëlaat sa alal mais di wutal yóbbal mais dem di wéetal sama borom donc ñu ngi jàngee ne quarante ans yu mu balaa muy wootee risaale mhm. mu ngi nekkoon ci beneen maqaama di wéetal borom xam nga salaa salaam bi jibril ñëw ci moom ci xadis bu siw boobu jël ay tànkam sës ay tànk ay omam jël ay loxam tekk ci ay poojam dafa ne ko maa maanaa islam la moo islam mhm. moo ko moo juróom seede yi mhm. nga seede ñaari baat seede yi nga julli xaama salaat itaay zakat sàmm ramadan xajul bayt min taxta ilay sabila mu ne ko juróom ponk yi mhm. mu ne ko la mooy iman mu ne ko iman mooy gëm yàlla tuminu billahi wa rasulihi wa malaayika di kutubi wa rasulihi wa wa yawmal axir wa xadrihi xayrihi wa sharrihi mooy nga gëm yàlla gëm yonentam gëm malaaka yi gëm bisu penc gëm ndogal bu ne ak bu naqare mhm. mu ne ko lan mooy ixsaan mhm. mu ne ko ixsaan mooy an taabudallaha ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraak ngay jaamu yàlla mel ni yaa ngi koy gis fekkee moom gisu nga xam moom moo ngi lay gis moom yàlla mhm. am na gis am na comme gis nga islam sax ñetti pàcc yooyu la islam ak iman ak ihsan yun salaa sa dundam soo xoolee ñetti yooyu la la mel 40 ans la woote la nekk wootewul dara 40 ans dafa nekk di wéetal boromam rek mu woote 13 ans yoo xam ne iman rek la woote mm-hmm. la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam julli amul woor amul benn atte amul mm. fukki fa fukki at yu mujj yi lay doog a nag indi nag atte yeeg yooyu mm. ci reñaane indi julli ak loolu donc mm. da ngay dégg sax ñetti islam ñetti maraaxil diine yooyu feeñaan na ci dund Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñeen fukki jiitu 13 ans yi topp ci 10 ans yi doo ci topp yunus sallallahu alayhi wa sallam ci dundam kon xaarul ba wooti risaala doog a sax di jaamu boroomam mhm. kon jaamu bi tàmbali na ko moom bu mu gën a àdduna mhm. di wéetal boroom di ko sàbbaal mhm. sa wax na ko léegi léeg bu mu gën a àdduna lu mu njëkk def mooy dafa rot suuf su jóot sàbbal boroomam riwaaye ñëw na ci di ci mooy dafa ne dafa ne ah, alhamdulilahi alhamdulilahi kasi ah, subhanallahi kasira walhamdulilahi alhamdulilahi walhamdulilahi subhanallahi kasira mhm. walhamdulilah allahu akbar kabira walhamdulilahi kasira wa subhanallah bukratan wa asila mhm. donc moom dafa dudd rek mun allahu akbar mhm. tudd naa màgg yàlla kabira ku màgg sallallahu alayhi wa sallam moom lii la njëkk a def dafa njëkk a màggal boromam ustaz yonent bi danaan tudd yàlla fu mu toll sallallahu alayhi wa sallam lii laa bëgg paa waxal ñu ci tudd mm. yàlla yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mm. danaan tudd yàlla fu mu toll di wéetal boroomam mm-hmm. tudd yàlla mooy loo xam ne mm-hmm. ci lañ ñëpp ci lañ war a dellu mm-hmm. dama commencé wax ne yoon sallallahu alayhi wasallam mooy xaatul jamaul jami moo dajale fu mu nekk nii soo xoolee bi carte générale tàmbalee ba léegi ku nekk waxtaane nañ ko fi waaye xanaa sëlaw leen kuñ ci waxtaane tamit yonti bi la ñuy waxtaane koo ci jël di waxtaanee kooku doo ko yëg lu dul yow yaa ngi wax kooku la la wax ci yonent bi ak fa la toll ci yonent bi ak la la rey yonent sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. delluwaat ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tudd tudd yàlla yonent bi laa bëgg ñu wax ci mm-hmm. yonent sallallahu alayhi wa sallam da doon lu nëbbu ak lu feeñ mm-hmm. fu mu toll mu tudd yonent bi fu mu toll mu ngi koy sàbbaal ba sax lii nag laa bugg def sama dénk di wax paap na wax nit ñi jamono bi ñu toll ci crise boo xam ne dafa daj àdduna bi yëpp muy euh, pandémie bi nekk fii. Mhm. man bëgguma sax tudd turam far. Mhm. turam duma ko tudd dama koy tëb rek. macha allah ndax mu jóge fi. Mhm. mu nekk lu ñu fàtte. macha allah lii solution mooy ñu dellu ci yàlla. te dellu ci yàlla mooy dellu ci Seydina sallallahu alayhi wasallam ndax mooy buntu yàlla huwa baabullah buntu yonent bi ci sikkar ci tuub ak ci dellu ci yàlla. macha allah barakallah. Pape jërëjëf Aïdara. dellu ci yàlla. allah ci tuub. ci tudd ya ak dellu ci moom mm-hmm. xanaa xam nga oustaz euh, Assane mm-hmm. nit lu mu yaakaar ne loolu mooy terangaam mm-hmm. day bëri di ko tudd dëgg la yaakaar ne fu mu dëkk dëkk mu dëkk moo gën dëkk yi danaan man waa Dakar laa ki naan man waa Thiès laa ki naan waa laa ki naan waa fële moo gën danaa man olof piir laa ki naan man séeréer piir laa kii naan ku nekk naan man nangam piir la mhm. waaye dafa fekk ne ñun suñu teddange moo ngi nekk ci tudd yàlla mhm. macha yàlla mbir da ko séddale ñetti pàcc mhm. loo xam ne dafa matt du manqué mooy yàlla ci zaatam ci jëmmam ak malaay nga xam ne ñoom dañuy tudd yàlla fu ñu tool toll ñu manqué bind loo xam ne dafa manqué ba faaw mooy janaaf ak bàyyi may ak jamaadaat yi objets yi ak animaux ñoom dañoo manqué bind nit muy mat ak a manqué xam oustaz nit fa la ma tey hmm. jamono bu mu delloo ci borom hmm. jam nit del jamono bu mu tuddee yàlla hmm. jamono bu la nekk ci mat ci la nekk ci mat su fàttee yàlla rek wala mu bay tudd yàlla rek dellu ci manqué manqué bi donc tudd yàlla mooy sunu mat dégg naa Cheikh Ibrahim mu ne fekk du tax nit tudd yàlla munu nekk matam moom ndax dafa dafa aju ci loo xam ne nekkul jëmmam tudd yàlla nekkul sa jëmm fekk dafa nekk ci jëmmam nii du taxali ko jëmmam waaye xaal la boo xam ne soo ci nekkee yaa ngi nekk ci mat soo ko manqué yaa ngi ci yaa ngi nekk ci manqué mm. li mu bëgg wax foofu mooy jamono bii mm. li ñuy rëcceel mooy yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent sallallahu alayhi wa nekkul shafiul umma ba àllaaxira paap fii la commencé ñu ram ci la mag yi dellu woon mag yi moom lañ dëkkoon maa ngi koy wax léegi-léegi balaa maa ñëw ak benn soppe ma ne ko xoolal mag yi Hmm. Cheikh Ahmad Bamba moom. radiyallahu anhu. douze ans douze mois yëpp la ko jox. Hmm. salaatu sitta bi matxi sitta. waaw fekkee fekkee dafay dillu ci moom juróom-benn weer. Hmm. di ko tagg juróom-benn weer. xanaa jox na ko dundam yëpp. jeex na kon juróom jeex na. nii la mag yëpp meloon. Seydi Hajji Malick dundam yëpp ci loolu la ko jeexal dégg naa fa émission yoo xam ne wallaahi dawoon a yaram koo xam ne dañoo jeex ci yàlla ba nga xam ne mënuñu lekkati dañuy mos rek pour pour mën a dund. maa ngi démb démb rekk fi jaar suñu sob fi jaar oustaz euh, mu ne ñaari yaay bu muy weer bi di teru boo weer bi di jeex ñamul dara du dul bëgg def sunna yonent sallallahu alayhi wasallam su dog jotee mu jël dara mu mos ko su xëdd jotee comme sunna yonent mu jël dara mu mos ko ñii fan lañ tolloon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoom dañoo dem ba dañoo jeex ci yonent bi seen lépp nekk Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. oustaz Pape maa ngi wax nañ dellu ci yonent bi sallallahu alayhi xam nga wax dellu ci yàlla lañu war a wax mhm. tudd yàlla lañu war a wax mhm. waaye nag kenn du dem ci yàlla mhm. fekk jaaroo ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nañ dellu nañ dellu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Sénégal nag kenn doon wax bëgguñu yonent bi sallallahu alayhi li koy dëggal mooy njabootam bi nekk fii ci Sénégal sallallahu alayhi wa sallam dugal Sénégal nga tàmbale Rosso ba soo ñëwee ba di profité di jaale wakachal xalifa suñu waajur boobu suñu mag bi jóge fi bu yàggul yal na yàlla yokk ay leeram soo jógee Ndar Louga ba fii foo toll di ziar xalifaam Cheikh Saad Bou doomu Cheikh di jaale tamit suñu papa mooy Cheikh Abdoulaye Rabbani moo doon jiite Medina Baye ci ci weeru koori foofu ndeysaan génn na àdduna ci biir ci biir ci ñett waaw ci fukki fan yu mujj yi ñoo ngi koy ci ñett yu digg yi ci ci la génn àdduna doomam Cheikh Tidiane Rabbani moo moo fay jiite fii foofu dem yaa ngi fekk ahlul bayt rasul foo fekk Sénégal exemple ñun sallallahu li ñu bëggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm. ahlul mooy njabootam bi nekk fii sallallahu alayhi wa sallam mm. maa ngi dénk ñu ñu ñu Pape mm. ñu ñu góorgóorlu ci loolu ñu góorgóorlu ci bëgg yonent bi ñoo ngi lay gërëm bu baax amoo dara loo bàyyi indi nga ñu yonent sallallahu alayhi wa indi nga ñu juddoom indi nga ñu màggam indi nga ñu tamit sax mais da nga jaar ci ay baayam ak i ndeyam ba ñëw sax ci xalifaam boobu mooy Seydina Alin xam ne mooy maamu ahlu bayt rasul sallam di jaar di nuyu ahlu bayt rasul yëpp di di la di la di la di la ndokkeel ci guddi gi ñu ko waxee guddi gi sa guddi la guddi yonent bi la waaye sa guddi la ndax waa TFM am nañ loo xam ne jaruñu koy jéggaani faneen mhm. mooy am nañ ku leen waxal ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam tey loolu leer na oustaz Pape jërëjëf Chérif am nañu mbégte macha allah euh, xam naa Chérif bëggoon nañu waxtaane jukko yi waaye xam naa ni cinq heures matin jot na alaaj Pape mhm. euh, Euh, waaye waaye rasulullaay moom euh, moom moo gën a baax ñëpp sa maam moo gën a yiw ñépp moo gën a sell ñëpp moo gën a tedd ñëpp gor ñi moo leen gën di gor ma am lu ma wax ah alaaj paam waaw waaye xoolal di nga xa di di boo lire lire message bi ma la yónnee di nga di nga di nga bëgg ñu dem 6 heures du matin yaa oustaz. waaw euh, ñun de doyaluñu. walaay jàlloo. doyaluñu. waaw kenn doyalul. ndeysaan. <laughs> macha allah donc ñu ngi fi jot nag ay yóbbante yu bëri yaa Oustaz. Mhm. di gërëm seeni seeni seen i borom. Ousmane Noël Dieng ñu ngi koy gërëm bu baax. Mhm. Euh, ci euh, taxawaay bi. Euh, voilà chef de cabinet ministre Diène Farba Sarr itam moom la ak waa Philadelphie yi. ñoom ñëpp euh, ñu ngi wane seen taxawaay ku mel ni Khady fay ci yóbbante yu ma ayse euh, joxe na 100000 pour Pape Anne Kumbis Ba même chose 100000 Alima Ba 50000 ñoom ñëpp rek ci kontaan gi ñu kontaan tey ci guddi gi euh, El Hadj Amadou Mbaye Garmi lii mënul woon ñàkk. bi ñu ne comme chaque année parce que du du du de bu leen foog ni lu bees la Euh, lii suñu xarit bi ne woon sànq texe ngeen tey kon xanaa am nañu cinq texe texe <laughs> defe naa ñu ngi koy def depuis cinq ans quartier général ah. ñu ngi ci bëgg yàgg de muy cinq texe juróom juróomi texe texe waaw mais bu lu bees neex voilà lu bees neex xam nga tey li nit ñi rek dañu foog ni lu bees la mais chaque année depuis que ñu tàmbali euh, quartier général euh, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la ñuy tëjee te euh, euh, mag ñi la ñuy waxtaane mm-hmm. am na mag yu des nag waaye mm-hmm. dinañ leen waxtaane ci yeneen i jamono insha allah ci télévision Futur Média El Hadj waaw nañu ma ko jottalil benn micro baax joxal ma ko micro géwél bi ñuy téye dégguñu ko bu baax ci bi ñuy tàpp dañ ko jox micro géwél ndax bi nga takk micro tubaab la jox ko micro géwél non pompal bul jël suñu temps euh. yow bàyyi mag ñi nga ñàkk kersa di nga yéex a sëy de defaral kii. introduire hmm. hmm. macha allah Pape Hann waxtaan suñu waaw defe naa ñëwagul ba léegi de te techniciens yi dangeen bëgg ñu teel a pare te micro yi baaxul nu ngeen di def kon dañ ko ko taalal très rapidement. voilà c'est c'est du direct c'est naturel et c'est que de la télé hein on organise tout en temps réel euh, pour vous 4h52 et euh, yéen ngi àndandoo ak ñun ki jara waxtaane rek la ñuy waxtaane tey di Seydina Mouhamed Mami Chérif Boubacar Aïdara Al Khayri voilà defe naa baax na waa euh, El Hadj. waaw am na solo trop. Hmm. Oustaz Assane tubaarkàlla yi mu ci état. <laughs> di wax mm-hmm. wallaahi ñoom Ndiaga Fall ñëpp bëgg xale yi kontaan nañ ci oustaz papa de. macha allah mm. waaw. ñu ne baaxul ba léegi de micro bi te yaa ngi wax lu neex mbay. yàlla ñu yàlla lafal cat. wallaay mbay wallaay mbay baax na. voilà boobu it. di uh-huh. baax na waaw très bien. loo jot rek désinfecté mbay. defe na de baax na léegi wala baaxul ba léegi. baax na ah baax na wala baaxul. voilà baax na walla voilà nee nañu nee nañu di wax ne ni Oustaz Assane introduire am na solo trop. Mm-hmm. oustaz Pape Anne waxtaan wi tamit àddina yëpp ñoo ci kontaan Chérif Boubacar résumé bi mu def macha allah di wax ne nag ni Pape Anne mel warta jaaxal kenn ci àddina bi ndax mbir da nga koy tarbiyu soo ko tarbiyoo ba pare te jëmbat ci fulla parce que Pape macha allah macha allah nit ki lu muy waxte fullaalu ko ñu koy déglu duñ ko fullaal soo koy déggaa rek ci cinq minutes yi nga xam ne nii moom lay waxtaan ci télévision bi dangay gis ful la jëm ciy def ak fayda jëm ci def mm-hmm. kon Pape ñi ngi lay ñaanal bég nañu de wax dëgg yàlla àddina yépp kontaan mm-hmm. télévision bi tubarkal li fi jaar yépp neex na waaye tey dafa gën a neex <laughs> di ndokkeel nag bu baax bàyyi Cheikh bu baax a baax mm-hmm. Pape Cheikh Sénégal yépp macha allah dañu am ñeewante ak yërmande ci yow ndax coono te coono bi ñoom ñi ci ginnaaw ñoo koy sentir mais yow mi koy def sentiroo loolu nag yombul ngay liggéey ba pare ñëpp xoolee di lay ñeewantal yow yëgoo ca dara cofee rek ak bëgg ak bëgg liggéey bi mm-hmm. ñu ngi lay ñaanal yàlla mi mu nga xam ne moo mën a dëgër yàlla na la yàlla dëgër allahumma amiin te jàppale lay tamit parce que léeg-léeg nga dégg lu neex wala nga dégg lu naqari mais xooloo dara <laughs> yaa ngi xool rek liggéey bi macha allah te di ko teg ci yoon mm-hmm. te loolu amul cofeel amul mbëggeel ci liggéeyam boobule loolu mënu ko am mhm. kon yàlla mi mën a sàmm yàlla na yàlla sàmmal na amiin amiin cëru kër gi kër gi fierté kër gi nga macha allah macha allah mhm. parce que da nga jabooti ñëpp du âge déedéet bu doon âge dëgg-dëgg kon du dema noonu mhm. mais du âge cofeel la ak mbëggeel ak cër boo xam ne bi yàlla mooy seet ku ko neex mu def ko ci ko neex kon loolu yàlla na yàlla jàppale di ndokkeel na xale yëpp tam di leen ñaanal jàmm amiin bay rawatina technicien yi. Ah, ay jàmbaar lañu. technicien yi xanaa xëdd yi lekk rek mbay. xëdd bi moom balaa balaa heure ba jot xëdd bi ñu lépp dañu jeexal mu daanu. macha nu toog fi naan nan dem 6 heures du matin. du ko def allah kon kon Oustaz Assane. di wax ne rek bàyyi balaa maa kii. Mhm. di wax ne suma benn jigéen bu ñu naan Naar Sow. Mhm. ma Cissé. Naar Sow Naar Sow ne mi ngi ñaanal Pape Anne yàlla yàlla yokk jàmmam ak suturaam. di ndokkeel tam aju jóor bu baax a baax nit ku yàlla baaxal la di wax ne tey Pape Hann sunu benn soppe bu ñu naan Sam Couture Amadou Mbaye Garmi man bariwul nag sax lu ma koy wax ne mu diw moo ma diw moo ma ñawal ku ma laaj ku la ñawal dama naan ma nga tàmbaa parce que bëgguma ku ma tricher ci ñaw waaye Sam moom tamit kale tey moo ma ñawal foog mu tudd ko mu ngi fii rek derkile bay seex léeg-léeg géer woo ma ne ma ku la ñëwal ma ne ko ma nga tàmba wallaay li nga may bëgg yëpp boobu ba tey maa ngi lay laaj loo sol ma ne la ku la ko ñëwal nga ne ma ku baax rek mbay waaw ma ne ko ma nga tàmba waaye ci nag moom fii moom mi ngi derkale tey jërëjëf Baye Cheikh maa ngi lay delloo jërëjëf El Hadj kon dañuy dellu ci beneen studio bi jox Assane bu ko defee mu euh, tëjal ñu ak gan yu tedd yooyu mm. euh, Chérif Boubacar Aïdara mm. euh, di ndokkeel sunu ay sang Serigne Galas Serigne Galas Amina Euh, euh, mm-hmm. ku naan xarjata mbeng xarjata mbeng bu mbuur xarjata mbeng bu mii nee na ma man taalibe sëriñ Saaliw laa mm-hmm. mais Sérif dama ko sant mm-hmm. xam naa macha allah macha waaw macha ku ne ko jàkk xam ne kii tubarkal de loolu yàlla may na ko ay taalibe murit yaa ngi ci laayeen a ngi ci euh, ñaseen na ngi ci ñëpp a ngi ci moom Chérif ay dara li ma ne sànq xëy na tout tànk la ci fi àddina waaye ñun xam nañu yaa seen xam na ñun xam nañu voilà macha allah donc ñu gërëm bu baax baax euh, ki nga xam ne ni mooy sëñ Galas Amina euh, di ko ndokkeel euh, Mor Kumba itam sunu xarit la surtout El Hadj Doudou Ndiaye Kumba Rose ca Belgique di nuyu tamit Am Dieng Am. ak jabaram ñoom Penda Penda ak Awa samay samay doom lañu nekk Paris donc am Euh, ñu ngi koy euh, ndokkeel euh, bu baax ainsi que njabootam yëpp toute la famille ummi madame Dieng moom tamit ñu ngi koy bëggee ak njaboot Adja Kiné Diop Adja Adja yaayu maamu maam Saala ñoom ñëpp ñu ngi ñu ngi leen di nuyu yenn saa xel mi day fattu mais c'est normal donc daal képp ku bég rek yow xamal ni. Euh, euh, bëgg nañu euh, man pendant que may daas fanaanal ci enveloppe yu mujj yi Euh, mujje joxe ci ñi mujjee dugg ma bàyyi Assane euh, mu euh, tëjal ñu jotaay bi ci beneen studio bi. Mm. ñu nit ñu doog a dellu si ma joxe quelques enveloppes ci 88 628 76 76. ñu doog a tàggatoo tey ci guddi gi mon ami Chon le grand photographe ñu ngi lay ndokkeel bu baax Chon photo la ko xale yi tuddee. Mm. donc son itam ñu ngi koy béggee bu baax. Mm. Ajat Kumba Diop yaayu. Euh, Charles Pierre maamu maam Sala ak euh, yaayu Nabou ak Babacar Euh, ca Sagata euh, moom it euh, ñu ngi koy ndokkeel bu baax Tafa Thiam mu ngi nekk Wakaam Oustaz Assane kon ñu bàyyi la nga organiser ma organiser ma tëj bi foofu. Mm. ñu doog a dellu si fii ma joxe enveloppe. ñu mm. doog a tàggatoo ba ca kanam. 22 mm. ci dernière quartier général incha allah. jërëjëf Baye yaakaar naa ne tey xol yëpp tooy nañ comme ni ko El Hadj Mouhamadou Mbaye Garmi waxee. Mm-hmm. ñëpp bëgg nañ ndax ki ñu doon waxtaanee Seydouna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. waaye ku xam cër bii yàlla jox sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam faww mu nekk sa biir xol faww nga bëgg ko faww nga sopp ko ndax yàlla nee na lu mu bind moom moo si gën te ku nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa la war gënal sa bopp keroog seydna omar radiallahu anhu bi mu ñëwee ne ko man dey bëgg naa la waaye day sama bopp moo ma la gënal mu ne ko tànk gënal ma la sa bopp gëmuloo ma mu ne ko li nga wax sa waxu bopp la wala yàlla moo la ko wax yàlla yebal jibril alayhi salaam ne ko demal nee ko annabiyu awlaa bil muminina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ullu arham baaduhum awlaa bi baadin fi kitaabillahi min almuminina walmuhajirin illa an tafaalu ila awliyaikum maarufa kaana dalika fi lkitaabi mastura yàlla ne ko neel jullit yi ansaar muhaajirun ak képp ku lay gëmi ëllëg ak ñi la gëm tey ñoom ñëpp yow yaa leen gënal seen bopp mu nekk kon bés ni ki tey yaa ma gënal sama bopp yaa ma gënal sama soxna yaa ma gënal samay doom noonu la ñuy toppee Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu ko yàlla fayal ëllëg ñu jébbal ñu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp dugal ñu aljana oustaz Pape xam naa dama nay jox nga tàggoo Chérif ñu dellu ci studio bi bu ñu tëj Chérif ñaanal ñu incha allah ñu yëkkati jataay bi ñëpp bëgg nañu ñëpp kontaan nañu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bëgg nañu ci yow mag ñi bëgg nañu ci li liñ doon sonn lépp ngir lii rek la liñ doon jaamu yàlla yëpp ngir lii rek la liñ doon bind yëpp bàyyi fi ngir ñun ñii ñu mën a fekk mbind yi ba xam kan mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa ñi koo si jël mbindam tey jéggi na ay frontières demal si université yi gën a mag boo demee boo sukkasndikoo si bindu mag ñi boo demee suñu borom subhanahu wa taala mën na la si defal tawfiq bu mag man dund naa ko si xilaasu zahab si hijra bi ak cheikh seydi alhaaji malik radiallahu anhu keroog ba not yu génnee maa am meilleur note wax naa si tale yoon te si bii mag ñi bind fii mhm. lañ ko jële téere mag ñi mhm. dictionnaire firiw ko mhm. tegal dictionnaire teg li mag ñi bind nga ne da nga koy firi doo dem kon mag ñi baatin lañ doon bindee mhm. am na keleen wala leneen lu leen doon déey mhm. ngir ñuy bind si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ñoom ñëpp yàlla nañu leen yàlla fayal yàlla na yàlla yokk seen leer te taas ñu si barke yow itam mhm. yàlla na la yàlla gën a def mag yàlla barkeel sa xam-xam yàlla gën a barkeel sa lépp ndax sa cofeel si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam umpatul kenn waaye ñi nga ubbi seen xol def si rasulullahi sallallahu alayhi wasallam te yàlla rekk tax kenn kenn kenn xamul nu mu toll nee naa émission bi ngay def di siira moomatoo ko ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko téye ndax dundam ngay waxtaane mhm. jaar-jaaram ngay waxtaane mhm. ay mbaaxam ngay waxtaane mhm. yiiwam ngay waxtaane teddangam ngay waxtaane saa yoo si waxtaanee rek nit ñi gis ci seen bopp ndax yoolu la yàlla waxoon sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dhahrak waaye li neex mooy wa rafa'na laka dhikrak borom xam-xam yi ne mooy aynama zikirtu zikirta yàlla ne ko fexe naa bu fu ñu ma tuddee rek mhm. ñu tudd la kon si loolu nga nekk waar woowu yàlla na si yàlla saxal yàlla la fal la cat nga yeggalee ak sago dund dund dund dund ba transféré ko say sët si darajay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp bëgg nañ oustaz Pape allahuma la aduru ñu bàyyi la nga tàggoo ak téléspectateur barakallah am nañu mbégte am nañu mbégte euh, Sina Assane yow itam kenn amul sa fay li ñuy def rek mooy ñaanal la wér. ndax groupe Futurs Médias la tàmbalee ci sunu président Youssou Ndour. Mm-hmm. Euh, ba kii mujjee ñëw démb. Mm-hmm. Euh, ñëpp ay kilifa la ñu waaye ñëpp mbaax ak jàmm ju sell nga siq ak ñoom. Mm-hmm. ñu ngi lay ñaanal yow itam. sa xam-xam sell na rafet na. yal na ko yàlla gën a barkeel. yàlla dool laa la fal cet yàlla sàmmal la boppam aaral la boppam. Euh, gërëm alaaj Pape Cheikh Diallo. bu baax moom moom moom Pape. moom moom dafa maa bëgg ngir na Muhammad ba ma xam ko ba waaw moom itam ma moom itam cofeel gi ma am ci moom mu xam ko mhm. euh, di ko ñaanal yàlla lafal ko cat moom itam mhm. alaaji ma bunu bay gar mi nag moom mhm. kenn ku ne xam na sama diggante ak moom maa ngi koy ñaanal gudd fan maa ngi koy ñaanal wér nuyu soxna Xadija bisu ñëwul waaye xel maa ngi fi yal ko yàlla defal jàmm suñu jigéen yi ñëwul ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñoom jay na baak ñoom besel ak euh, ñoom ñëpp rek ñi ñëwul ñu ngi leen di ñaanal yal yàlla barkeel leen ajaratu Yaasin sëy rasul Yacine moom dafa bëgg na Sidina Muhammad ba ñëpp xam ko moo soxna Fatou Dieng Fatou Dieng nag moom day sama jigéen waaye di sama xarit waaw di nit ku baax euh, Adja Coro Mbaar nag moom moom moom da bis bi ñu njëkkee gisante bis boobu lañu la ñu miinante mu baax lool yaru yaatu lool mën a sonn ci nit waaw yal na ko yàlla barkeel euh, waaye laaj Pape maa ngi gërëm sëñ Fallou sekk mii dama ko yéex a woo parce que dama defoon Moustapha Seck Moustapha Mbaye dina ñëw Moustapha tawat moo tax ñëwul ma xool xool wëndeel sama xel ma ni faaw njabootu Seexul Xadim ñëw ci ba jotaay bi comme njabootu Alaaji Maalik ngi nii te mooy ngañ bàyyi mm. te Seydina Muhammad dañuy waxtaane xataay bee tax indiwuma njabootu Seex na Seex Saad bu indiwuma euh, waykat bu jógee kër Seexal Islaam ak indiwuma ku jógee kër maam bu Kunta ca Njaasaan mm-hmm. loolu xam naa maam bu Alaaji Paap dañ ko defal spécial indiwuma euh, jotaay bi moo ko doon mayee waaye sama xel ne yar ci fàllu sekk mi yaakaar naa Alaaji Paap kontaan nga moom di sama xarit bu yàgg lool bëgg ma nag lool Fallou Seck mm-hmm. euh, moom itam yal na yàlla barkeel leen euh, papa Abdou Mbaye alaaj daaw góor Mbaye ko jur mm-hmm. Ngañ Mbaye Mansour Mbaye jur ko euh, Moustapha mbaay Cheikh Mbaye jur ko Iba Mbaye mais sunu ndey ndey bu sa mbaay jur ko ak alaaji mbaay mii ndey bu sa jur leen ñii seeni yaay yeeg seen bàyyee bokk ndey ak bàyyi waa góor yi xamoo leen xanaa <laughs> yow garaaw mi ngi noonu ngañ nag moom day sama péete mm. man ñëpp samay xarit lañ waaye li ñu naan ragal péete day xañ a cër mm-hmm. moom bi may péete ak man eh. boobu amu mu ngi am fukki at mm. ma nekk ca daara ja muy jàng alquran mm. may jàng xam-xam mm-hmm. mu tafu ma nag nekk sama xarit mm-hmm. nekk sama rakk di tagg yorantu bi ñu jóge daara ja ñibbi seendoo mu continuer di ma tafu kon ñëpp samay xarit lañu hmm. waaye nag ah ragal péete nag day xañ a cër hmm. ah, moom ngañ nag sama péete la hmm. waaw ngañ nag moom moom bu amoon programme tey jëm ca su ma ko woowee mu bàyyi lépp daal di ñëw waaw bu fekkee kilifa yi yónni wunu ko ah, kon ngañ maa ngi lay ñaan gudd fan yaa ngi ñuy taxaw biir di ñu taxaw biti féete nga ak ñun te ragaloo ci dara waaw kon yàlla yàlla barkeel la ñaanal sa baay alaaji Mansour Mbaye ñaanal alaaji daaw góor ñoom ñëpp ñaanal nag sama xaritu bopp Abdoul Aziz Mbaye ñaanal soxnaam nday paala Abdoul Aziz moom itam kenn amul fayam yal na yàlla gën ko barkeel sama taawu baay Modou Xaban Aan Pape si alaaji ma ñaanal sama baay alaaji Saliou Aan mi ngi gaañ mi ngi génn àddina 6 décembre bii passé mhm. waaye sama baay la woon waaye dafa ma bëggoon sopp ma mhm. tey lii bu ko fekkoon billaahi du nelaw bu bët set nii lay toog di kontaan li ma bokk na ci yi yooyu envoyé ma ko ma koy déglu waaye dafa ma ko dama koy bëggee waaw moom dafa ma jur ba noppi bëggoon bëgg du ma wax bëggoon ma waaye bëgg ma lool sama bàyyi nekkoon sama xarit lool lool ah. yal yàlla kawel alanaam waaw yal na yàlla yokk leeram yàlla yeesal yërmande mais laaj pap sama yaay yaay Fatou Ka mi nga xam ne moo nu jur sell lool yiw lool baax lool nelawul ba bët set moog waa kër ga yëpp ñoom maxtaar ak màgget ak ak xale yi Euh, kon ñu ngi leen di ñaanal gudd fan ñaanal sama yaay yàlla bàyyi ko fi dama ko waxoon ni ko fa illi fii ki ya ummi dawaamun wa ma tansa bi comme yaazal anaamu ma ne ko wa fatimatu samiyatu lil batuuli wa kam naalat bi birin la yu daamu ma ne ko yaay booy li maa laa nilti maa naalat nisaa'u wa birruki kaana yazkuruha al anaamu wa ma pap an yazulu biki du'aa'i kafat ni fatimun umul kiraamu xam naa loolu déwén laa koy siri mais laaj Pape am nañu mbégte kon yal na yàlla guddal fanam euh, Mouhamed Ndiaye yal na yàlla barkeel la yàlla boole la ci journaliste yi gën a mag ci àdduna bi baax nga yaru nga yaatu na suñu techniciens yi nag kenn amul seen fay waaw suñu caméraman yi ñoom euh, Ofak Demba ñoom Cissé Euh, Baye ba euh, Baye Niass alaaj Pape daal kenn amul seen fay ñu baax lañu mais Pape il faut nu gërëm la parce que alaaj Pape da nga jiite plateau boo xam ni yenn saay yenn saay ñu wax fu nu war a waxee yenn saay ñu wax foo xam ni waruñu faa waxee parce que plateau bi yaa koy gérer yaay diriger palaato bi mais yenn saay ngay wax ba mu yàgg ma këf la te foofu waruma laa këfee foofu wala asan këf la wala keneen këf la wala nu waxee fu ñu la waral waxee te nit loolu jaaduwul waaye nga muñ ko ci sa xol bu yaatu nga won ñu mbégte nga won ñu yaatu nga won ñu yar nga won ñu cofeel musuñu laa gis nga changé ci plateau loolu mbaax la loolu yiw la waaye gërëm nag mbooleem ñu fi woowoon ñuy waxtaanee xam-xam mhm. Saliou Samb moo fi mujj béeg sunu xarit la mhm. Gana mesere sama xarit la mhm. euh, Abdoulaye Diop Bisri sama xarit la ñoom jaawaa kër Seexul Xadim la nu sëñ Alioune Diagne ren bégal njabootu Seydil ma la yëpp sama xarit la ah Oustaz Babacar Ba ah Oustaz Ahmed Fall ñëw bégal ñëpp maanaam ñi fi jaar euh, oustaz bité yi ñëw teewal njaboot Cheikh al Islam euh, oustaz. Euh, Baaralaay Samb. ah Hadj Baaralaay Samb. ñëw teewal teewal waa kër Sidna Limaamu alaaj Paap ah. ñoo xam ne ñun ñëpp benn la ñu. mag ñi rek lañoo bayal. te mag ñi kenn rek lañoo ñoo bayal mooy rasulullah. yàlla yàlla yokk seen i leer. ñu laabalaat suñu xol. yéene waat ñëpp jàmm. sëñ Abdoulaye maam Abdourahmane Mbàkke nee na. nit day boo yéene ñëpp am jàmm. du tax ñëpp am jàmm de waaye di nga am jàmm. waaye boo yéene nit ñi safaan du tax nit ñi am yow yaay am safaan gërëm Serif Boubacar Haydara ah, bu ñuy waxtaanee Seydina Mouhamed doomu rasulaay toog dañuy gën a mu ngi noonu leneen li ñuy yëg kenn xamul lu mu doon kon yàlla na yàlla fay la gërëm sunu directeur Bouba Ndour Ndiaga Ndour coono yi nuy jànkonteel ci télévision bi kenn amul seen fay ak Birane ñaanal président Youssou Ndour hmm. moom daf noo bëggal boppam sopp nu ba nu xamal ko sunu bopp hmm. yëg nu nag yàlla na yàlla barkeel ko alaaj Pape nabien yëpp su ma fi laay fanaan mais waa ITFA waa Amérique uh-huh. waa Zone Tidiane uh-huh. ah waa Cincinnati ñoom Amadou Mbaye uh-huh. ah kenn nelawul tey kenn nelawul waa Philadelphie ñoom soxna yu ma tey kenn nelawul ñaanal nag Serigne Sidi Ahmed Mouhamadul Habib ñaanal Serigne Moulay yal na yàlla yokku leen dëgëral maa ngi jégalu ci kàddu yi bu dëggee man mii la bu jubee Euh, sama sëriñ yi ma jàngaloon ñoo ma jàngal lii maa ngi leen di gërëm ki ma jàngal alquran Baye Makhtar Cissé hmm. yal na yàlla guddal fanam ba ma jàngal ba ma wàcc alquran ñi ma jàngal xam-xam waa Busra hmm. sëriñ Habib Ndiaye sëriñ Cheikh Omar Ndiaye hmm. sëriñ Sama na yàlla guddal seen lu fi jub daal ah. xam na la ñoom la waaye bu dëngee man mii la ndax ut xaalisam li lijjanti yu bari ah. waaye lu fi jub Mm-hmm. sama sëriñ yooyu ñoo ma ko jàngal te ba léegi ñu ngi may jàngal kon yàlla yàlla fay leen euh, wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf mm-hmm. kontaan nañu Chérif euh, ñu ngi lay gërëm bu baax yow lañuy bàyyi rek nga tëjal ñu mm-hmm. alhamdulilah ñu sant yàlla bu baax di euh, tàmbali ci yow El yaakaar naa daaw bi ñu fi jógee mhm. kenn mënu woon wax El waaye ren mën nañ la ko wax loolu yokkute la jërëjëf ci yow laay jaaree rek di gërëm euh, télévision bi yëpp tàmbale ko ci président Youssou Ndour ñun sax waruñu toog ci fii nuyu ñu chef de l'état mhm. borom dëkk bi mhm. ak soxnaam suñ ko nuyoo sax moom suñ ko moom sax nuyu waa nañ Sénégalais yëpp suñu nuyee soxnaam nuy nañ soxna yëpp ñu ñu ngi gërëm Bouba Ndour bi nga xam ne maa ngi koy wax sànq suma xarit la léegi rek dañu waxtaan maa ngi waxtaan bu gàtt. Mhm. ma ne ko dara ci jikko yoront bi. sallallahu maa ngi koy jox léegi Pape xam nga yoon salaasam kenn mën ko waxtaanee ci benn jotaay. déedéet déedéet kenn mën ko waxtaanee sax ci jamono. Mhm. boobu ba léegi nit ñaa ngi bind jeexul. Mhm. woy nañ ko su géej yëpp nekkoon nekkoon daa garab yëpp nekk ay xalima. du mën a jeexal day neen toq rek la mën a jël ci moom ba léegi. dañu waxtaan léegi maa ngi moom loo xam ne bëgg naa ko partage mm-hmm. dama waxoon oustaz nu waxtaan ci jikko Yunus salaa salaam. Mm-hmm. heure bi dafa dafa dafa gàtt dafa gàtt waaw. Yunus salaa salaam yow ñëmul ci benn si Yunus salaa salaam dëgg la Yunus salaa bu mu gañee ñëpp. fatul akbar bi nga wax léegi mm-hmm. ñëpp. dafa ne baal naa ñëpp. idhabu fa antum baal naa ñëpp. Allahu akbar ñu mën a wax su bëggoon sax jikko Yunus salaa salaam mën nañu ko tënk ci loolu. dafa ne baal naa ñëpp. waxtaan ak léegi euh, directeur euh, Bouba. ñu waxtaan ci ajam mu ne bu ma demee aj ba ci ñaan fi mu war a ñaan ci kaaba ga li ma njëkk ñaan mooy dama ne baal naa ñëpp. allahu akbar. loolu mu far faraat ma toogee bi mu toogee fii la ma ko wax. macha allah mu ne ma nee na baal naa ñëpp. ne yàlla may encore xol bu mu mën a baale ñëpp. ndax fu laa bëgg tàmbalee man baal ñëpp. ma tontu ko ne ko loolu Seydina naa sallallahu alayhi wasallam moo ko def. sallallahu alayhi wasallam moo ne bi mu jëlee lépp mu ne baal naa ñëpp. macha donc nañ roy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi nafsi wa usikum bi maa ngi dénk sama bopp di dégg ñëpp yàlla jërëjëf ak topp ko wa aleykum bi salaatu aley julli ju moom aleykum bi ak samia salaatu fati shukra wala salaatu annabi shukra tajidullah tajid indallahi huwa azamu ajra maa sha allah maa ngi dénk ñoom ñu julli ci yonte bi lu bëri sallallahu alayhi wa mën na dindi lépp mm-hmm. yu biir ak yu biti yi mm-hmm. julli ci yoon salaasam day defar xol mm-hmm. ndax ala bi zikrillahi tatma'innul qulub day dalal xol yi di ko di di ko defar mhm. waaye ci la mbir yu feeñ yeeg li ñu ragal yëpp na ci demaale macha allah di nuyu euh, Mamadou Ndiaye garme mhm. mu ngi may waxtaan sànq seenumal maa ngi lay nuyu mhm. ak Baye Niass bi eh, nuyonteeg man léegi fii ak takk diin salaa ngeen xam ne yéen yéen salaa su dekk yawmal qiyaama wallaay ñu koy tagg ci ñaari téeméer turam yi ak benn yi ñi doon tagg yéen salaa sallam fii ci àdduna ñoom ñoo koy dar di tudd tudd tur yooyu. macha allah loolu laa leen bégalee yéen. di nuyu nag sama famille. Hmm. sas pap nuyu sama famille sama xalifa papa Cheikh ay dara actuellement mu ngi mu ngi Canada. ñu koy ñaanal yàlla. amiin gërëm nañ ñëwee fii ak Cheikh Adnan ak Cheikh Abdou Khadre Jeylani nga xam ne hmm. man ci moom laa topp. sama mag sama pap mu ngi fii Dakar fii la nekk. di nuy sama waajur bu jigéen. mu ngi fii Dakar alhamdulilah na yàlla yokk fan ak yaram ko di nuyu sama soxna Seyda Maymuna Jaañ xam ne mu ngi fii tamit moom taalibe la hmm, taalibe Seydina Ahmad sallallahu alayhi wa sallam moom bi ma àndeek moom ànd mu ne man jox naa yun sala sama bopp jaare naa ko ci yow donc la maa ngi koy maa a sa xarit la waaw sama xarit sama soppe xaritu Pape An la lool lool lool jonante nañ tey ay xarit lañu waaye damay seede rek ne ku ci nekk soo jógee ci kër mhm. bàyyi nga fa soxna mhm. am na kenn ko waxtaan fii kër bay bëgg a jeexal mhm. am ku ko fàttali ay soxna ma ne dimbal nañ ko de ko fàttali mu ne mu ne maa ngi nuyu Màkka man tamit man alay Pape man tamit nuyu ma soxna yi ah waaw il faut ah. <laughs> yow tamit maa ngi nuyu sa soxna sama soxna Fatou ak Khadija nuyu naa leen ah soxna soxna yu baax yi Chérifa Kia Aïdara maa ngi koy nuyu jërëjëf yow suñu goro nga Pape jërëjëf li ñu lekk dafa gis nga yow bëgg da nga bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam feeñ na ci rek nga denc doomam sallallahu alayhi wa sallam ngeen am ay njaboot barakallah fu mu nekk ni yow dara mënu la génne ci waa kër yonent sallallahu alayhi wa sallam fu mu nekk ni yow say doom ay sëtu Seydina Muhammad ne loolu jar bàyyi xel ñu ngi lay gërëm bu baax Pape di dénk sama bopp di ñëpp ragal yàlla di dénk nit ñi nañ dellu ci yàlla mm-hmm. di dénk nit ñi nañ jub mm-hmm. Oustaz Pape bi waa ñëwee ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa ne ko dénk ma mm-hmm. mu ne ko xul amint bi dee waxal gëm naa yàlla su mastaqim mm-hmm. jërëjëf oustaz mm-hmm. loolu la ko wax mm-hmm. ñaari wax waxal gëm naa yàlla topp loolu jubal donc ñoo ngi dégg ñëpp ñu jéem a góorgóor si njub inchallah jéem a ci yàlla ak yontu yàlla sallallahu alayhi wa ñu ngi kontaan lu ñu bëggoon wax yëpp mënuñu ko wax ndax jotaay dafa xat te dañoo ñëwoon tey pour gunge suñu xarit suñu soppe Pape Anne suñu soppe la nëbbuñu ko dëgg la macha allah ah, fekkoon ne dañuy joxee mention excellent la ñuy joxe. macha allah excellent salaam léppam excellence la. macha allah sallallahu alayhi wa sallam donc ñoo ngi kontaan baax jotaay bi. di wax ne ñu kontaan tamit li ngeen ñu tànn li privilège la prestige la. Mm-hmm. ngeen jël ñu. ma fi ma nekk na xaadimu ahlu bayt rasul sallallahu alayhi maa ngi répété waat man maa ngi toogee fii toogaayu nekk jëwriñu mbindaanu waa kër yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci Xasan ak ci Xuseyn yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu macha allah jërëjëf Chérif barakallah yàlla na taxawaay bi yàgg amiin amiin amiin yàlla dëgëral la amiin fi jot ci ay yóbbante yu jógee ci Euh, sa ay taalibe ci àddina wërngal képp itali France États-Unis bëri na donc kenn mënul lim waaye ñoom ñëpp euh, kontaan nañu donc yàlla yàlla bàyyi la suñu kanam ndax ñun xam nañu yàlla gën la dëgëral di euh, ndokkeel itam sa soxna moom it yàqalul kenn Euh, ci sa euh, diggante ci ci yàq yàqaluñu ci suñu dig ci sa suñu diggante voilà donc yàqalul kenn moom it euh, ñu ngi koy wax gàcce ngaalaama jërëjëf Chérif Oustaz Assane yow itam ñu ngi lay gërëm bu baax. jërëjëf Baye ngërëm gi yëpp dañ koy jël rek teg ko sa loxo nga tegal ñu ko si loxo kilifa yi ndax comme ni ko Oustaz Pape Hann waxee jiite yombul te fa tabaarakallaahu yaa ngi jiite. di yaatal di defar. lépp la nga xamante ni xëy na nar na soosu sax di nga ko jooyanti ba kenn kuy seetaan nekk si te këram du xam ne fii am na lu fi sooxe wala lu fi naroon sooxe te loolu lépp li la ko may moom mooy sa générosité waaye itam sa professionnalisme parce que nit ki boo nekkee ak moom mu amee ay jikko dafa jaadu itam nga waxal ko ko ba ñëpp dégg ko fa tabarakallahu macha allah te nii nga mel si télé bi nga mel sa biti si biti itam fa tabarakallahu macha allah kon dañ lay ñaanal yàlla yow alaaji Pape Cheikh yàlla gën la dëgëral gën la sàmm la gën la te làq la fu yàq yeggul si daraja Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa cofeel si Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam man mën naa si wax lu bëree bëree bëree bëri ndax ñoo nekk ndaw woon Makkatal Mukarrama gërëm bu baax ki nga xamante ne moom mooy la président Youssou Ndour ñaanal ko ak ay rakkam ak doomam Birane Bouba njaga waaye ak mbooram personnel bu group Futur Média ndax ñëpp def nañ seen doole seen kattan seen xam-xam xam nga kuy jóge këram sa heures dog fekk la fi nga dog te fi ngay xëdde kooku yaakaar naa ne fa tabaarakallaahu liggéeyam jaral na ko lu ne kon ñi fiy daan seen doole ñëpp yàlla nañ am lu kawe seen jot si barke guddi gi ñu doon waxtaane Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam man dag may may rek ma nuyu waa Yoff yëpp jël nuyoo bi teg ko si loxo imaam al akbar Mouhamed Ndoye ak Chérif Abdoulaye Thiaw Laye xalif général des Lions waaye nga may ma itam fa tabarakallah ma gërëm sama yaay ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér ndax tey jii lu bëri lu nekk si diine moom moo ko def si ñun ndax ku juddu amaguloo fukki at sa wayjur bu góor làqu ngay dem yàlla di la dimbali ak njàmbaaral sa wayjur bu jigéen ba nga yëg sa fii kon kooku jaadu na nga ñaanal ko bu baax a baax ak mbokk yëpp mënuñu lim ñëpp ku lim rek di nga am ka nga xamante ni moom nga bàyyi apulaay nee na ajaaru xëyatu Bousso madame Rugi Bousso madame Diouf mu ngi koy nuyu bu baax Cheikh Abdourahmane Daw Pape Antou ko ñu ngi koy nuyu Mouhamad xam ne moo bindala 11 moom tam ndax mooy missionnaire u Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi mu nekk nii alaaji Pape mhm. yàlla nañu may yàlla may ñu fekkee déwén ndax fekkee dafa jafe yàlla ñu yàlla may ñu fekkee te tal waaye sama ziar sama nuyoo sama lépp maa ngi koy teg si loxo sama wayjur mhm. sama kilifa sëriñ sama sëriñ sëriñ Babacar si Mansour mhm. xalif général des Tidiane yal na ko yàlla guddal fanam ngi ko war ak njabootu Cheikh Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu Chérif Mbaye waaw nuyul ma ko. waaw Pape Anne nee na mu ngi nuyu Chérif Mbaye. alaaji nuyul ma Ibrahima Mbaye. ak Ibrahima Mbaye. waa Mbaye ak ñaari Moustapha Mbaye. ñu ngi kon Baye Cheikh yàlla bañ a manqué mu ànd ak wér. ak xéewal ak sutura si darajay a yi yal na yàlla fay yàlla nangu koor gi. Mhm. waaye ñoom itam ñu ngi leen di tàllal suñu loxo di sàkku ñaan fu ñu mën a nekk si àdduna mhm. ndax kenn xamul ban gémmañ li di nangoo ñaan mhm. fa tabarakallahu Baye Cheikh kàddu gaa ngi noonu jërëjëf jërëjëf jërëjëf mu ngoog jërëjëf Oustaz Assane euh, nañu jël téléspectateur léegi très rapidement ginnaaw maa ko diggee donte 6 euh, heures du matin léegi mu jot ñu jël rek joxe euh, ci dànku yu mujj yi lay bokk ñaar fukki junni baax na nga xëddee ko quand ci période bi li nga xam ne ni période waajtaayu korité la korité suba wala gannaaw suba lu ci mën ci am rek da ca korité la te mën nañu leen bégal ci jeexital bi léegi nii ay ca nañu dugal téléspectateur le temps de permettre à Mamadou Ndiaye mu tàggatoo moom itam alo allo alo allo allo. allo. kooku. allo. waaw ma ni ko kan la. waaw man la Ibrahima. Ibrahima na nga def. allo. ma ni Ibrahima na nga def xëdd nga ba pare. allo. xëdd nga ba pare Ibrahima xëdd nga xëdd nga. waa Ibrahima la Ibrahima. waa man ni xëdd nga ba pare xëdd nga. Ibrahima allo. Ibrahima fan ngay wootee. allo. Ibrahima xëdd guñu bu ñu bu ñu bu problème ah. <laughs> waaw kay ah, Ibrahima waaw maa lay dégg dégg bi leer na. xëdd nga wala xëddagoo. ah xëddagu ma de yéen laa la xaar ba bu léegi kay. léegi ñu salaatu loo doon xoolee ba xëddoo. Ah? loo doon xoole ba sa ba xëddoo léegi ñu salaatu de. ah waaw mais émission bi rek seetaan rek émission bi neex lool waaw ñuy suur oustaz oustaz ah. waaw di kontaan lool nag ci ci waxtaan bi. macha allah am na xale bu ne léegi may na ko connexion internet am 200 MO xaw ma nañ ko jox numéro Pape Hann 500 MO la ko may 200 la. 500 <laughs> MO. Mm. ah dama foogoon ni 200 la sa Pape Hann may na la MO. Ah, ah, ñaata la. seer bëriwul de 100 francs lay jar mais baax na xeebuñu ko Ibrahima. waaw am nga cent mille francs ah ah loolu de moom neex na di. mais pour sa yaay la. Ah, waaw woo woor nag ba koor gi jeex nga yàq sa koor naan ma waaye di kot di kot ñaar fukki junni cent mille yi ñu la may pour sa yaay la. <laughs> jërëjëf jërëjëf jërëjëf El Hadj El Hadj Pape Cheikh Diallo ah jërëjëf jërëjëf kontaan naa merci Ibrahima. Mm-hmm. voilà jël la ci ginnaaw envoyé la xaalis bi nga jox ko sa yaay. <laughs> voilà donc ñaar fukki junni yooyu bu amee ko ñëw ñu jëlaat ko merci euh, Mamadou Ndiaye et euh, voilà. pour téléspectateurs yeeg euh, internautes yi réaction yi bari na Pape oustaz Pape Hann ñu ngi lay gërëm. di rafetlu bu baax teewaay beeg waxtaan bi si di gërëm bu baax aussi bu Boubacar di ko di sàkku ci ñaan ci moom. di euh, gërëm tamit ñëpp ñu ñu bokkaloon plateau bi jiital ci ngërëm bi tamit euh, ki nga xamante ne mooy euh, tonton Garmi di suñu kilifa en tout cas di gërëm kilifa groupe Futurs Médias mais aussi téléspectateurs yeeg ñi nga xamante ne aussi ñoom lañu àndaloon durant weeru koor bi yëpp di internautes yi seen fidélité mais surtout seen wóolute gi nga xam ne am nañ ko ci ñun di gërëm daal en tout cas ñëpp di ñaan ñu ñaanal ñu ñun tamit ñu ñaanal leen ndax euh, ñu fekk ko ay déwén yu baree baree bare yow nag Pape jaruñu lay gërëm dañu lay ñaanal gudd fan rek euh, ñu ànd ak yow di di di liggéey ci jàmm di jox euh, dig daje ba suba incha allah voilà merci beaucoup. <laughs> di remercier sama benn grand vraiment buy jàpp bu baax. ci su ci quartier général bi durant mois bi yëpp di euh, maman euh, grand Mamadou Gueye. Mm. ci conseiller ak ñëpp ñi nga xamante ne aussi ñu ngi doon conseiller di ñu ne moom lañu def yombul mais góorgóorlu nañu incha allah di ñaan yàlla nañu ko yàlla may ñu fekk ko ay yu bari. maam mm. Fati yow ñu ngi gërëm bu baax Dieng. am euh, mbégte saa su ne di bokk ak plateau naka noonu ñi nga xam ne ñoom lañ ko séqaloon eh, euh, téléspectateurs yi nag Pape Cheikh moom faaw ñu jaajëfal leen ah ndax amuñu seen fay euh, bëgg nañ ñu am nañ cofeel ci sunu jëmm ju xeebu ji ñu leen di sant bu baax a baax di leen gërëm fu leen mën a nekk di leen wax rek ne mbégte lañu amoon di leen gunge nag ci quartier général bi am mbégte itam di ko ànd ak Pape Cheikh ak chroniqueurs yi fi nekkoon yépp Pape Cheikh nag il faut ñu remercier liñ koy encore une yi ku ci mel ni Pape Ndiéri Fall journaliste ñoom daal euh, ñu ngi doon seetaan waaye nag fi may tàggatoo rek mooy di remercier encore Doriga Ami Ndiaye sama rak jooju ci euh, tunique yi nga xam ne moom ma doon accompagner si euh, li nga xamante ne si moom mooy quartier général numéro téléphone am mi ngi noonu di affiché naka noonu Pape Cheikh aussi suñu partenaires yi ci jàppoon yëpp ku ci mel ni Tetatou Minata Création Fatima Li lii Baye Nene bëri nañ ñoom ñëpp jàpp ci liggéey bi wax dëgg fa yàlla amuñu amuñu seen fay euh, sant nañ leen gërëm nañ leen yow kenn di yow Pape Cheikh. jërëjëf maam Fati kontaan nañu. yow yàlla la fal la cat lañ lay ñaanal. amiin yaa rabbi Fati Dieng <laughs> Yacine Rassoul. merci waaw Baye Cheikh euh, di am mbégte rek c'est toujours avec beaucoup d'émotion lay euh, terminer QG ci plateau Seydina Mohamed bi sallallahu alayhi wa sallam. ah di di wax rek di remercier di féliciter déjà Oustaz Pape Anne. moom càmmiñ la léegi frère la dañuy waxtaan lu bari ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nit ku baax ku yaatu ku wàcce boppam mais ku bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa donc lii bettuñu ndax yonent bi moom ku far dem ci moom rek mu dox 100 wala 10 ñëw ci yow donc euh, di ko remercier bu baax di ko ñaanal yàlla la fal cat li mu bëgg ak fi mu bëgg àgg moo ko xam yal na ko yàlla defal ci darajey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ziar bu baax di ko jox wàccuwaayam Chérif ay dara moom waaju waajur la sëriñ la macha allah du jóg di ñu conseiller du jóg di ñu ñaanal du jóg di ñu teete di ñu teg ci yoon di gërëm aussi soxnaam su baax soosu di may mun a Njaay moom aussi yàqul dara soo ñëwee dalay accueillir yaatal la macha allah di ko remercier bu baax di remercier aussi euh, ay dara di benn sëtu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nelawul tey moo ngi ba Thiès ñoo ngi koy remercier bu baax a baax di ko wax ne loo ñu bëgg rek bëgg nañ lu ko raw les photos de l'année dernière bi ñuy def dernier plateau Seydina Mouhamad mu nekkoon plein d'émotion ah Bessel euh, génne woon kii gagné woon billet bi àdduna nii rek la euh, donc euh, di ko remercier aussi Bessel parce que bi mu ñëwee Baye Cheikh indiloon na ma col bu rafet maa koy remercier bu baax a baax jotuma woon am temps wax ko donc di remercier aussi Baye Lahat rakku Birahim Mbacké Balla ak Maram ay sag Sadio ba ca Italie ah di doom si Awa Mbacke bu sëñ Xaadim docteur di soxna sëñ Moustapha Mbacke bu sëñ Koso Baye Cheikh nit ñi amuñu seen fay da ngay dem ba doo moomati sa bopp waaye rek di sant yàlla mais koy moom des fois message yëpp doo ko mën lii doo ko mën a lii doo di di di di di remercier bu baax si taxawaay bi ak si complet euh, di sant sama yaay bu baax aussi. ma ah, ma jaxate jaxate kabe yéeri waaw ndax mm. euh, fu ñu toll rek moo ngi sonn di ñaan di tette. Mm. Euh, jaxate kaba yàlla nga gudd fan ànd ak wér. li nga bëgg ci njaboot gi yàlla nga fekke ko. di nuyu aussi tey na ma ne woon ma koy nuyu muy sama yaay roqee jaxate. Mm. waaw bàyyi Cheikh ndax yow li ñu bokk dafa rëy. dañoo bokk maam ma jaxate bokk mbaaxool eh. moo tax soo naan ma petite cousine nit ñi duñu comprendre mais li ñu bokk dafa bëri te sori. Eh. donc dama dama lay ñaanal rek ndax ci yow te li ñu sekk yàlla moo ko mën a seede eh, di la baalu àq bu baax nag ndax lakkal naa la torop jàllo <laughs> te nga ànd ceeg dal ak supporter ñu di ñaanal eh. ay dara eh, yàlla sàmm ko moom tamit ndax yàqul dara ci relation bi bi nga jógee màkk nu ma ko tàyyi di ko wax moom ma woo ne ma maa bëgg nga ñëw teew ci sa bésu càmmiñ bi donc Aidara yàlla na la yàlla yokk yiw li nga bëgg si ca njaboot yàlla na la ko yàlla dafa Sénégal nii rek la faw ñuy gërëmante ndax loolu la yàlla bindee <laughs> di wax rek di remercier Baye Cheikh ki nga nga xam ne moo ma habillé tey di Soleil Couture merci beaucoup euh, mbay ñu mën ko fekk fële ca Touba Sandaga ñu mën ko jot au 77 595 35 58 77 595 35 58 mais aussi Salama Couture ak Fa Fashion ren bëggoon na ma solal mais xaju ci voilà c'est ça c'est ça di wax rek euh, yàlla ñu fi yàlla bàyyi yàlla nañ ko fekke déwén yàlla bu kenn manqué yàlla bu kenn manqué le ci darajey Seydina Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam au revoir et à l'année prochaine merci beaucoup Yacine Seye ma petite cousine Yacine ñu ngi lay gërëm bu baax euh, Thioro merci toi aussi merci à toi dañu lay gërëm bu baax gërëm ñëpp ñi nga xamante ni euh, ñoom la ñuy àndal ci euh, quartier général bi parce que euh, du liggéey bu yomb quand même parce que ku xam quartier général xam ne c'est une très grosse production donc bu ñu ci nekkee di ndaw di ci bay suñu waar nekk ci à l'aise c'est parce que yéen yéen ñu yaatal yow moom comme moom Mamadou ñaay dañu lay bàyyi rek ak yàlla te ñaanal la li ma naan sa xol ak sa générosité yow rek la ko yàlla may donc yàlla na yàlla yàggal taxawaay bi man fois bu ñuy def quartier général inédit euh, rawatina bu tombewee ak bosu Seydina Mohamed sama xel day dem ci sama yaay à chaque fois parce que non seulement quartier général émission wam la woon mais bii moom daf ci daf ci rawoon euh, donc euh, tey sama xel dafa dem bu baax ci moom di dool dolli di ko ñaanal suñu borom yërëm ko te bàyyi te teg loxo ci njaboot gi nga xamante ne moom la fi bàyyi gërëm itamit ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàpp ci quartier général bi mu dangay am famille am ay xarit yoo xamante ne tout le temps dañuy topp ci sa ginnaaw ngir bëgg mu baax euh, je pense à Ndeye Yaxara Diagne mi nga xam ne daf may topp comme si moom mooy sama yaay looy sol looy def defee nii defee ko nii te loolu générosité ak baax rek moom moo koy def day bëgg saa su ma génnee lépp di normal donc moom maa remercier bu baax remercier ñoom Ndeye Gàmmu ñoom Mage lilian mm, ma bi bébé Khady je remercie toute la famille euh, ci jàppale bi sama papa nag moom kenn amul fayam misaan ak mbaar dañuy ñaan rek mu yàgg fi lool parce que daf ñuy jàppale bu baax ci suñu liggéey wala ci lépp loo xamante ne rek euh, ñu ngi ci gërëm ñëpp ñi nga xamante ne depuis bi quartier général commencé ñoom ñoo ñuy jàppale ci mise en beauté bi ci solu bi ci yëpp euh, tey je remercie particulièrement ci tenue bi ak ci maquillage bi aramichou wala so chic by aramichou sama sœur yooyu nga xamante ni li ma leen koy waxee chaque jour teel a xëy guddee wàcc rek la ñu xam euh, ñoom ñu ngi nekk Ouest Foire Yoff elles sont joignables au 77 903 49 80 Euh, merci beaucoup pour mise en beauté bi tey ak tenue bi remercier bu baax Bijou Ndiaye merci pour tout Mamadou Ndiaye également merci pour la collaboration Bouba merci pour la confiance merci à tout le monde sonal nañ torop nag techniciens yi monteurs yi ñoom Youssou ñu ngi leen di remercier bu baax ci collaboration bi et à l'année prochaine ci beneen quartier général incha allah merci beaucoup euh, euh, Thioro bu tuddulee lu ma dugg ci kër gi te dama koy fàtte moo may snap bàyyi Cheikh ci solu beeg si lépp fans club euh, sëñ Moustapha Sey yow yal na sa fan gudd aw ma sa fay de lépp moo koy def sama gannaaw waaw yal na la yàlla sàmm li nga bëgg yaa ko xam yal na la ko yàlla def sëriñ Moustapha Sey fans club voilà El Hadj jërëjëf jërëjëfati waaw xam naa ni sonn nga waaye jërëjëf rek Mbaye ñu ñu ñu tàggoo rek voilà <laughs> wallaay Mbaye jërëjëf baal ñu rek Mbaye <laughs> ñu tëj ak euh, ngañ ak euh, sëñ Fallou hmm. di ñaan daal yàlla nu yàlla nañ ko teewee at yu bëree bëri mu ànd ak jàmm ànd ak sutura ndokkeel nag ñëpp nag ndokkeel ñëpp Sénégal yi kenn mënu leen fay dañoo jël télévision bi def ko seen alalu bopp ni ñu ko bëggee di ci di ci di ci boose ñoom noonu lañu ko bëggee tubarkalla duñ ci jàppale mm-hmm. te mbir ku la ko jàppale ku la cay jàppale war nga ko sant gërëm ko mm-hmm. ñoom daal maa ngi leen di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne tamit euh, buuba mention spéciale mm-hmm. parce que nit buñ la dénkee dara te nga jëmbat ci fulla dafa am solo chaque jour fii lay fanaandoo ak nun te loolu nag dëgg-dëgg euh, mënoon na léeg-léeg mu jékki-jékki daal di daw. yoo leeku yoo leeku tubaarkàlla te boobaa tamit mooy loolu. te loolu ci ci ci mbaax la te tamit boo ñëwee fekk ko mu nekk ci wetu njaga da ngay dangay dangay da gën a kontaan <laughs> te xam ne booloo rek mooy doole. ñoom tam yàlla na yàlla sàmb leen te lafa leen cat. amiin sunu doom ji tamit di biraan yàlla na ko yàlla jàppale. xale bu yaru la te baax. xale bu yiw la ni nu bëgg doom mel tubaarkàlla noonu la mel. Mm. yàlla ko yàlla gën a dëgëral. amiin Baye Cheikh loolu rek laaj ci tàggoo di wax sama jigéen ñi tamit mm. ñi ñëw ak ñi ñëwul ñëpp mm. maa ngi leen di ñaanal yàlla sàmm leen mm-hmm. te jàmmal leen macha allah ay xale yu yaru lañu ah. waaw xale yu xale yu mën a joxe cër lañu macha allah waaye xale yi xale bi def lii tamit de mbay yëngal naa dina de ah. macha allah ah. bëgg na waaye nit day am expérience tuuti di <laughs> mbay di gëstu Baye Niass di yow di waaye Baye Niass ana Baye yàlla yàlla guddal sa fan billaahi boobu ba léegi toogoo noppalu woo ba pare da def li ngay def ci xol nga koy def macha allah te ñëpp te ñëpp te ñëpp nga ci yemale. macha géew. ndax nun boo nu cofee dañ lay cof. Hmm. ku la mën a jur. Hmm. waaye yow cofuloo kenn. ni nga jàppee pape mi présenté. Ah. moo tax nga mën a def lii. yal na yàlla samati guddal sa fan. mu ngoog kon mbokk euh, dans quelques minutes ñu bàyyi leen nag équipe bu RFM matin dina tombé ak 6 heures du matin pile jot Mamadou Mouhamed Ndiaye mi naan El Hadj Barthélémy euh, euh, ñoom ngeen di àndal ñu gunge leen ba ca kanam bu ko defee ñun it daañu dellu siwaat de général euh, ñu bàyyi ngañ ak euh, Fallou Seck euh, tëjal ñu jotaay bi la nga xame ni ki ñu doon waxtaanee moom rek a jara waxtaanee di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na sunu borom sàmm ñu ci barkeem ndax moom maami Chérif Boubacar Aïdara Al Khayri c'est lui qui détient toutes les clés te xam naa ni mën na saafara yëpp donc yàlla na nu ko yàlla fayal et puis tas ñu ci barkeem kon ngañ ñu bàyyi la nga tëj. Pape maa ngi di kontaan. ci yow yow nag moom da man may yow. ñoo bokk ñoo bokk lépp ñoo bokk bàyyi sa papa di sama xarit fan sa club waaw kay di gërëm waa bi yëpp nag di gërëm suñuy kilifa eh. tàmbale ko ci xalifa ba Cheikh Sidi Aboubacar si Mansour ak rakkam Serigne Pape Malick si Serigne Maodo si Dabakh Serigne Babacar si Abdoul Aziz di gërëm bu baax suñu baay maam Ousmane si Habib ak rakkam Serigne Moulay si Habib ak suñu baay xalifa si bu Serigne maam Habib si di gërëm njaboot Sidi xaaj Malick gépp waaye di gërëm nag suñuy jur di tàmbalee alxaaji Mansour daaw góor Mansour bàyyiwunu kenn ba ca Abdoul Aziz ak Serif Ibrahima ñàkk ñaari Moustapha gërëm sama yaay soxna Fatou Thiam ak ay jigéenam ak ay xaritam Leena njaay bu Serigne baaba kërsi soxna Kumba Ndiaye ak Salma Fall ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm bu baax di leen ziar soxna Ami Ndaw di gërëm nag Maodo Maodo Niang lii ma def nii moo ko def boole maag tayaar Mansour Diop bu Grand Dakar Souleymane Ndiaye Alxaaji Omar Diouf mooy man may moom Mouhamadou Lamine Camara sama sëriñ Diop sama turandoo di Diop si moom laa tuddee sama sëriñ di gërëm bu baax ñii ma àndaloon ñii nga xam ne maa ngi ñoom ma bokk lépp maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant nag soxna Jeena ba Dabaax sama bàjjen soxna Umu Xayri si Dabaax soxna Ayda maa ngi ziar soxna Fass Seck soxna méttu soxna méttu soxna Lalla bàyyiwuma kenn jabar si di Xaaji Maalik gépp soxna Umu Kalsum si Habib fana bu Seydunaa Muhammad ñoom ñëpp gërëm naa leen di bàjjan ndey safisi bu maam Habib maa ngi koy gërëm bu baax ak njabootu Seydi El Hadji Malick gépp du nuyu samay nijaay du nuyu sama maam Alxaaji Baraya Mbay ak sama 100 pour cent Alxaaji Ngañ Mbaay ñu ngi leen di gërëm di leen sant waa États-Unis soxna Adama Ba ñoo soxna Aminta Seck fa tabaarakallaahu gërëm naa ñëpp daal dama bëri ay soppe lool te bu ma ko bëggee lim Pape Cheikh fi laay fanaan waaye daal ñu ñaan yal na leen yàlla taxawu ci barke Seydouna Muhammad sunu yaay madame Mbengue ca Gël Tàppe Adja sunu yaay yooyu ñoom nday Mariam jóob ca Faas ñoom Gitambeer fa tabarak Omar Sène di gërëm sama sopp yëpp daal bàyyiwuma kenn maam ngoone bu faas di nuyu nag di gërëm sama xarit alxaaji Malick Dieng ñaanal ko yàlla yàlla guddal fanam Modou Mbaw alxaaji sa Mbeng sama sopp yëpp bàyyiwuma kenn gërëm naa ñëpp su ma bëggee lim fi fanaan di nuyu soxna Khadija soxna Kumba njaay ak soxna Ngeyta gërëm naa Fallou kon ma bàyyi la nga tàggoo rek man li ma bëggoon way tàggoo naa ko di nuyu mboolem kuy soppe mboolem kuy soppe rek ci kër gi rek nuyu naa la di nuyu soxna asukan fa tabaarakallaahu moom it di ko ziar di nuyu bu baax selli mi nga xam te ne mooy sama président 100 pour cent alxaaji ngañ mbaay moom ak sama rak bu ñuy wax maam Ousmane wax dëgg yàlla ñu sonn ci ak mbooleem ku bokk ci 100 pour cent ngañ mbaay rek maa ngi lay nuyu di la ziara di ñaan yàlla yal ci barke Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alxaaji Mouhamadou Lamine Camara du ma deñ di ko gërëm yal yàlla guddal fanam sama xarit la sama soppe la di gërëm bu baax sama taawu papa muy Mouhamadul Basir Mbaye mooy sama kilifa su ma ko nuyoo rek nuyu naa mboolem lu aaju Mansour njaboote di bëgg ci ñëpp di gërëm samay soxna soxna Kumba Ndiaye di ko baax soxna Ami Ndiaye bu Mouhamadul Habib maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar kontaan naa jërëjëf. waa kay jërëjëf euh, ñu ngi sant bu baax di sant Pape Cheikh di sant Pape Hann yi ñaanal suñu ñaari waajur suñu borom guddal seeni fan di ziare bu baax mboolem ñi ñu doon seetaan ñëpp ku ne xam na ni temps bi moo ko mayewul waaye di ziare baax sëñ Saliou Seck Italie sëñ Modou Seck ak sëñ Moraw Seck sëñ Ousmane at waa sant yàlla caaro yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax di ziare soxna na ba Kebe wax dëgg yàlla at Serigne Mbacke Ndiaye wax dëgg yàlla ak sëriñ Bamba Ndiaye sëriñ Ibulaay Diagne ñoom di ay jëmm yoo xam ne ay nit ñu baax lan di ñaan daal képp ku ñu doon seetaan yaa xam li nga bëgg yàlla na la ko yonent bi defal ñu ngi am contentement bu baax di ziare waa télé bi yëpp di ñaanal bu baax sunu borom defal ñu jàmm defal ñu xéewal di santaat bu baax rek waa caaro yi sunuy ñaari waajur ñu ngi leen di ñaanal suñu borom guddal seen i fan sëñ Ousmane miy def teraanga gi yàlla ko yàlla fay ci barke yonent bi ñu ngi bég bu baax a baax a baax di sant ñëpp di ñaan képp ku ñu doon seetal daal yàlla nga ci dajal ngërëmal Seydina Muhammad ci barke borom Touba di siyaare Serigne Baara Mbacke Mamor moom Serigne Mamor say jaxate moom sëñ Fallu ak soxna Mominatu Kebe di leen ñaanal suñu borom guddal fan sëñ Xaadim Mbay maa ngi lay ziare sëñ Abdou Ndiaye yooyu it maa lay ziare bu baax a baax a baax di sant ñëpp jërë ngeen jëf TFM jërëjëf seetu Sénégal TFM